إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار noo ngi xam sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk di ko kañ ci mbooleem tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom ku ci wéet la mu la noo ngi koy gërëm ci tawfiq ji mu ñu defal ba ñu mën a yegg ci jotaay bii mu ngi julli di salama ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waame mucc xéewal ci kaw yonente bu ay saxaabam ridwanullahi alayhim ajmain mu ngi dee képp ku yàlla subhana taala gindi kooku de ku gindeeku la ba faaw te dara mën a koo dëngaloon sunu borom it ku mu bàyyee ak boppam ba mu sànq kooku ku sànq la ba faaw te dara mën a koo gindee noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi borom bi day subhanahu wa taala ku baax la ku bari ay tawfiq la yuy bàyyi ko fa moom di jëm ci jaamam yi loolee yépp muy ay xéewal yoo xam ne sunu borom moo ko defal nit te tekkiwut ni nit dafay def dara ba xam ne sunu borom di ko ko defal bal kay sunu borom moo baax baax ak boppam ba ay xéewalam mu ne su koo lim defal na doomu aadama ci ay xéewal lu bari moom suñu borom xéewal yoo xam ni mënee su koo xam ba di ko lim waaye mënee su ko wattu it ba di ko takk xéewal yooyu la sakkanit la ca war doomu aadama def ko ca mooy gërëm ca yàlla subhaanahu wa taala gërëm googu nag mën na nekk ci ay wax waaye mën na nekk ci ay jëf mën naa dugg ci bunta def ay digle waaye tamit bàyyi tamit ay tere bokk na ci buntu xéewal yu mag yi nga xam ne sunu borom defal na ko doomu aadama mooy ni'matu nutqi wal kalaam mooy wax addu ba ci ngay waxal wala ñi ngay waxal mën a dégg wala li nekk ci sa dënd nga mën koo yegge ñi ngi ko bëgg ñu xam ko loola ci xéewal yi gën a mag te xeebu ci sunuy bët ca la bokk moo ne kàddu day borom bi subhanahu wa taala daf koo def muy ab jumtukaay boo xam ni moyen la pour nit ñi di mën di déggante amaan la sax rab yi yeneen yi sunu borom defal leen ay jumtukaay yu ñu mën a déggante yu dul wax comme ni ñu koy defee noonu waaye loolu moom suñu borom defal nu xéewalu li ne ci sa dënn sa morom mënu koo xam suñu borom may def jumtukaay boo xam ne boo ko utilisé li ne ci sa dënn nit ki dana ko dégg ci gën jaa rafetu déggin kon day borom bi subhana taala loolu ci boppam moom moo njëkk a xam ne ni ci xéewal yu mag yi mu defal la bopp ba suñu borom di lim leen ci xéewal yi mu defal bokk na ci lam nu wax ci suuratul balad alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shakatayn xanaa du nun yàlla noo leen xéewal xéewal bi ñu tuddee ñaari bët nit ki di mën a xool fi mu jëm ba du daanu di xool fi muy dox ba du fakkastalu walikaanan sunu borom defal ko aw làmmoñ wa shafatayni ak ñaari tuñ làmmoñ bi bu dul woon ak ñaari tuñ ñu wax wax ji du yegg du jub du ko man moom doomu aadama ci kon yëpp ci xéewal yi la sunu borom defal la bokk loolu nag naa que bu ko sunu borom di lim doomu aadama ci si boppam bu ci yegsee rek ci war a def ak taxaw seetlu mooy xool bu baax lii sunu borom di wax day sunu borom moom lu mu xam la ndax moom moo ko def waaye yow mi ñuy waxam ngir nga xalaat ci xam ne lii dëkk xéewal la boo xam ne ab moyen la bu ñu war a utiliser ci topp yàlla waaye bañ ko utiliser tamit ci mooy kon daal li mu bëgg a wax foofu mooy xéewal làmmoñ ci boppam ci xéewali yàlla yu mag yi la bokk ci xere ni def defi yàlla yi tamit la bokk dëgg la aw cëru tuuti la waaye nag musiba yi mën a indi ci yaram dafa mel ni beneen cër ci cër yi xaw koo mën a indi te foofu jar na seetlu bu baax bu dee ci wàllu jëmm cër bu tuuti la par rapport ak yeneen cër yi ne ci jëmm ci te yëpp di xew waaye bu fekkente ni lim la mën a jural ci ay njariñ ak lim la mën a jural ci ay musiba ànd ak tuutiwaayam bi ak ñi ko ëpp ni mu bare néew na cër booy dem fekk fa lu mel ni li ngay fekk ci làmb nagam day diggante xàmmee kéefër ak aji ngëm yàlla kooku làmbañ participation bu rëy la cay def ngir ñu xam lan la ka ni ki wax ashahada tey ginnaaw bu ko fatee di ko jéem a dund kenn da laaj lam man ci làmmañ moo ko ko wax loo moo ko ko waxal kooka ca la ñuy sukkandiku ngir séedeel ko ngëm ki nga xam ne dafa wax ay kalimaat yoo xam ne yu safaanook loola la di dund lu ko nuru wala lo loo di ko dund la ñuy jàpp mooy kon du ko gëm yàlla kon ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk taxawaay ba nu koy wan mooy làmmoñ ba tey sax boo dee seet li am ak li amut li ñu njoot ak li ñuy foo li nga xam ne nit ki da koy janeer di yaakaar ni lii la fekk du loola yooyu yëpp diggante saxal ko ak weddi ko ku seetlu da nga xam ne làmmoñ am na ca wàll bu rëy xatta la ci xam-xam ci boppam ki ko yore lu mu bari bari bari bari bari pour nit ñi mën cee jariñu dëgg faaw mu wax bu waxee nit ñi déglu bu ñu déggee jariñu kon daal loolu ci la ñuy xam ni làmmoñ am na jagoo ci cër yi jagoo goo xam ni beneen cër bu dut moom amul doomu aadama ji nag su fekkee dafa sàggan boyal làmmoñam tijji ko ci kaso bi ko ko yàlla subhanahu wa taala tëjal ndax xam ngeen làmmoñ ku bari ay ayib la moo tax boo teetloo suñu borom subhanahu wa taala tëjin wu xeeñ la ko tëj tëjin wu xeeñ la yàlla subhanahu wa taala tëj làmmoñ nga xool ay bëñ ñoo ko wër bu ñu keppee ñoom ñaar daje làmmoñ bi mën a génn tuñ tamit topp ci kawam xel ñëw di mën a contrôler la ñuy wax la dënn bi di xalaat xel man koo xa càmbar ba xam ndax lu war a mën a génn ci làmmoñ la wala déet yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne suñu borom bi ñu koy jox doomu aadama xam gu mu xamoon ci ni làmmoñ kat mën naa indi ay musiba yu rëy comme ni mu mën a indi ay njëriñ yu rëy nit ki nag sàgganee ah boyal làmmoñam bàyyi ko liberté boppam seytaane ci moom la koy jël ah jëfandikoo ko xur bu ko soob rek mu jaar loola soo amul sens ca kàmb ga nga xam ni moo tiim sawara fa lay mujjee ak yow te bu fa yegsee ne la woon dina la du wax te su la ci ba ma xëyee da nga àgg daaral ma waaw wa bi sal masir loolu doomu aadama su ko yëgee kon da nga xam ne làmmoon ci boppam mën na koo dimbali ci ay topp yàlla yu bari comme ni mu ko mën a sànkee ci ay moy yàlla yu bari te foofu maa ngi sàkku ci sama bopp ci njaalbeen di ko sàkku ci mbokk yëpp ñu bàyyi xel bu baax nii làmmoñ ci boppam waxtaan yi ay mbiram solo bi foo ko takk jéggi na ko ndax li tax mooy dafa am fir yoo xam ni seeni mbir ci boppam mën naa bañ a concerné ya ca def waaye làmboñ moom saa buñ ko waxalee rek waxal nañ ñëpp ndax dafa mel ni bu doon ab pale la dañuy wax ni làmboñ ci moom mooy buuru pale la moo tax boo delloo ci sunan imam Tirmidi ci xadis boo xam ni xadis la bu wér Muaaz ibnu Jabal bi ko nekk di yonent yàlla bi wax ni waxal yakubu nnaasu ala manaxirihim fi nnaari illa xasaidu alsinatihim moo nag du bari ñoo xam ni buñ leen këpptalee tàbbal leen ca sawara boo seetloo da nga fekk ni lu leen fa dugal mooy lañ góobee ci seeni làmmiñ seen góobitu làmmiñ mu kon day ci départ bu mel noonu maa ngi yaakaar ni kenn ku nekk ci man ak yéen dana yëg ni làmmoñ ci cër bu tuuti boobu mën naa dugal nit ci aljanna waaye mën na koo tamit tàbbal sawara wala billah boo seetloo benn kàddu rek bu ndaw boo xam ne doomu aadama wax na ko moo xam bàyyi na ca xel moo xam bàyyiwu ca xel mën na caa génn ci lislaam min xalis yëpp yow laa yëg moo xam yéeg na ko moo xam yéegu ko fekk génn na ci lislaam benn kàddu ko ndawit nit ki mën na ko wax fekk loolu moo ko dugal ci lislaam bu fekkee dugg ci woon génn kàddu rek nit ki mën na koo wax daganal te lu lewut xam ngeen ni ci diggante góor ak jigéen ak frontière yu sensible bi ci lislaam baare baarage yi ci lislaam def genn kàddu rek mën na dindi baarage yëpp saan wa kadalika benn kàddu rek nit ki mën na koo wax kat aw askan benn kàddu nit ki mën na koo wax rek teqale ay nit yu àndoon benn kàddu nit mën na koo wax tuumaal ku set wecc wala mu setal ku ñu tuum ku ku ku yeyoo tuuma kon day mbokk yi làmmoñ ci boppam mën naa ni mooy lépp mooy lépp ci jaamu yàlla yi ndax néew na luy am dëgg te dugg dëgg-dëgg kon ci loolu ci la ñuy sukkandiku jégg waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ni ida asbaxa ibnu aadam fa inna al aadaa kulluha wala kullaha tukaffiru lisaan doomu aadama saa bu yeewoo mboolem cër yi sax ci sa jëmm ji dañuy muslu ak a mbóolu ak a bëgg a mucc ci làmmoñ dam ko yàlla naan ittaqillaha fiina ragalal yàlla fi nun ñun cër yi fa innama nahnu bika ndax nun ci sa ginnaaw rek lan mën a toog fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna su fekkee da ngaa jubal ci ku jub rek bis yi yëpp dana baax ndax sa ginnaaw la ñuy toog waaye su nekkee da ngaa tàggal dëng la chaque da nga ñu yóbbaale ci ay musiba ndax dañuy topp ci sa gannaaw xadis boobu mi ngi ci sunan Tirmidhi te xadis la bu wér kon li ma la waxoon sànq mi ngi bëgg a firnde wu ci wane ne cër yëpp ñu ngi basé wu ci làmmoñ li nga xam ne maanaam moo gën a tuuti ci cër yi wala bokk na ci cër yi gën a tuuti bopp kon boo xoolee borom subhanahu wa taala noonu mu ko tëjee màndarga bu réengo bu lay wan ne làmmoñ kat mën naa indi nit ci ay musiba sunu borom subhanahu wa taala ba mu ko tëjee ba noppi faram fàcceel la lenn ci ay njàngale wan la nooy sàmmee làmmoñ bi du la alal waaye noo koy jëfandikoo it ba mu jëriñ la sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula su isra borom bi mu ni ngal la waay na nga fexe ba bul wax lenn loo xam ni wóoru la wala leeru la wala ca amoo ca ay cëtlaa yu dëgër lépp loo xam ne ca sàkk na ca toll sunu borom ni loola moom bàyyi ba am lu leer doo ko wax waaye noppi bu ca wax te loolu njàngale bu am solo la boo xam ni ak a jaadu woon tey jullit ñëpp di ko jëfee ndax bari na yu yàqu yi moo ko yàqu mooy wax la wóorut sunu borom ni inna samaa wal basara nopp bi jégg wax ak bët ba nga xam ne moo yóbbu nopp ba ba mu dégg ba mu déggee ak xol bi nga xam ni ba mu déggee wax ja fa moom la jaar doo ko yóbbu yibbeeku ñëw ci làmmoñ suñu borom yi nii yëpp benn bu ci nekk mook làmb daañ ko teewal yowal qiyaama xisaab ko laaj ko ca lam doon wax ndax am na ci firnde wala gislaay wala déet suñu borom ni ee yow doomu aadama nun day noo bind ñoo la bind bind tey moroom xam lii nux nux ci seen biir dënn yi ak même bu ngeen waxee sax lu wuteeg loolu ndax ñun ñoo leen gën a jege seeni buumi xol bi sa ñëw boo xam ni ñaari malaaka yi la toppoon muy raqib ak atiid daañ la teewal indi mbooleem li nga doon jëf ak li nga doon wax su ko defee jox ko sa borom subhanahu wa taala sa borom àtte la ca lool maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bépp kàddu boo xam ne doomu aadama ji ci gëm yàlla gëm na ni su ko waxee daañ ko ko teewal yowal qiyaama kon balaa ko wax léegi na nag kàddu bi ci mbaax yi lay mën a dugg wala ci safaan yi lay mën a dugg loolu nag al aqidatu rasixa ak ci am solo mu yar sa bopp ci buntu pas-pas gëm ni yàlla subhanahu wa taala ko xam na mu lu teew ak ñu faatu boole na laaj ay laa yoo xam ne mboolem loo wax ak loo def ñoom xam nañ ko daañ ko bind wa kullu shay'in faaluhu fi dubur wa kullu sagirin wa kabirin mustatar lépp loo def rek enregistré nañ ko ci ay kay yu wóor yoo xam ne du màgget du xotteeku du réer sa borom yàlla mi leen bind looy xam na ba noppi ahsaahu llahu wa nasuuh yàlla moom garde na ko yàgg na nun nag danoo gaaw a fàtte amaan na ñu fàtte ko borom bi mu ni ee yow doomu aadama fàttalikul ni bisa ngi ñëw boo xam ni say cër ci boppam daf lay seede yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kaanu yaamaluun beneen laay mu ne yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun yawma idin yuwaffihim allahu diinahum alxaq wa yaalamuuna anna allaha huwa alxaqu almubin bisa ngi ñëw boo xam ni yàlla dafay def say cër da lay seede lam mi nga xam ni moo waroon a mën a défendre yeneen cër yi moom mooy njëkk a seede sunu borom subhanahu wa taala mu ni seeni loxo tamit seede seeni tànk seede ci li ngeen doon jëf bisab keroog day bis la boo xam ne yàlla dana leen fay la ngeen doon jëf muy diinakum alxaq la nga doon jëf loolu rek la la yàlla fay nag wa yaalamuuna anna allaha huwa alxaqu almubin kon borom bi taala yàgg naa jaaj doomu aadama ci mu bàyyi xel ci mboolem ay jëfam rawatina ay waxam sunu borom subhanahu wa taala mu ni ahsaahu llahu wa nasuu yàlla day ci boppam wattu na note na lépp li nga xam ni làmmiñ doon na ko génne waaye cëri ci mi doon nañ ko def yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci boppam ay njàngaleem boo ko xoolee ay firnde yu bari da cay ñëw ci wane bu mu wane importance boo xam nit ki da ko war a jox làmmoñ ci di ko sayu soo demee ci buxaari ak muslim ci xadis boo xam ne abi hurayra moo ko solo yonente bi inna al abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha baalan fa yarfauhu allahu biha darajat wa inna al abda la yatakallam bil kalimati min saxati allah la yulqi laha baalan fa yahwi biha fi jahannam doomu aadama ci boppam dina wax benn kàddu goo xam ni amaan na sax bàyyi wuñ xel kàddu goo xam ni day yàlla kontaan na ci subhanahu wa taala ndax kàddu gu jub la kàddu gu baax la loolu de sabab lay doon yàlla yëkkatil ko ci ay daraja ba génn àjjanaan sax xaj ca yàlla kontaan ci moom ba keroog muy daje moom ndax benn kàddu rek amaan na nit koo romb sax muy saaga wax wax ju bon nga tere ko ko ci anam wu mucc ayib amaan na kàddu booba sax yàlla moo mooy ci xam mu ni jaam bi tamit dina wax benn kàddu loo xam ni yàlla da ko caa jéppi da ko caa sànni mere ko ca amaan na moom sax bàyyiwu ca xel amaan na kàddu goroog kafe la sax waaye loola ci boppam mooy nekk sabab mu tàbbi sawar jahannam wal iyaadu billah kon loolu nit bu ko déggee day def muraqaba bu tar ci boppam comme ñu koy faral di baamtoo nit ki bu séqee moromam ab liggéey boo xam ni xaalis da say génne kenn ku nekk muraqaba gu tar bi ngay def ci sa morom di xam ndax mbir mi mi ngi jaar yoon wala jaarul yoon gu tar bu ko raw googa moom nga war a def ci sa bopp ak sa mboolem cër yi waaye nag gu rawaat googa moom nga war a def ci sa làmmoñ moo tax yéen si sax nag tëralal ñu benn xaay da boo xam ni kenn ku ne ci ñun na ko teg ci ñaari bëtëm mu natt sa boppam di wane ne yow mii kat ab jullit nga maanaam nit ñi tuddee la jullit nga taxut nga nekk ko nga tuddee ko sa bopp it taxut nga nekk ko waaye li nga xam ne moom la yent yàlla di jàngale lii di ku ko doon wala ku ko wax ab jullit nga loolu mooy tax nit ki nekk jullit ab règle lañ ni boo xam ne nit mën na caa natt boppam xaay da bu mag boo xam ne peete kaay la nit ki bu ca tegee ko dana xam poids bi mu yore ci ngëm ñàkk ko ci jullite ak ñàkk ko yent yàlla mu ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi ab jullit mooy koo xam ni jullit ñi mucc nañ ci ayibi loxoom mucc nañ ci ayibi làmmiñam mucc nañ ci fitnay loxoom mucc ci fitnay làmmiñam mucc nañ ci musibay loxoom mucc ci musibay làmmiñam léegi nga natt sama xool ndax yow est-ce que jullit ñi ci mucc nañ ci sa làmm est-ce que jullit ñi mucc nañ ci say wax est-ce que mucc nañ ci say fitna su boobaa kenn ku ci nekk mën na natt boppam ca loolu moo tax Muaaz ibn Jabal bi mu déggee njàngale yu mel ni yonent yàlla bi di ko wax dafa yéemu mu laaj yonent bi ne ko waaw wa hal nahnu muaxiduuna bi ma natakallamu bi mu ndax ñun li ñuy wax lépp moom yàlla lu koy soppe dina ko xisaab yéen teel a ne ko xakilat ka ummuk yow daal toskare ñeel na la wa hal yakubu nnaasu fi nnaari ala wujuhihim illa xasaidu alsinatihim mu ndax toog nga ne ñi ñuy doon di leen yóbbu sawara ñëpp am na leneen lu leen fa yóbbu lu dut la ëpp day nekk lañ góobee ci seen i am loolu day mbokk yi bu ñu ko déggee danañ am ak ciitaange lool ci ni doomu aadama mën naa ne ku baax lool waaye aw làmmañam yàqal li tam Muaaz moom moo dal Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu moom bi mu déggee njàngale yi kee moom dafa laaj ndax danañu àttee ne waaye moom bi mu déggee njàngale yi moom ay pexeem dafa jeex dafa xamut nu nuy def mu ne ko man la jaatu ya rasulallah léegi kon dama la dama laa bëgg a laaj ginnaaw nii la mbir yi demee kon nu nuy def lan lan war a def léegi bàyyi xel bu baax laaja ba oqba bi ñun la ko laajal yénte yàlla bi ne ko amsika alayka lisaanak wal yasaaka baytu wabki ala xatiatik après ga léegi ni bu am solo bu gàtt ci ñetti baat waaye jamono bii day ku ko dund insha allahu yàlla dana la musal yénte yàlla mu ne ko amsika alayka lisaanak fexeel ba sa làmmiñ bi moom nekkal njaatigéer téye ko balaa muy wax na nga wëlbati lañ def li muy wax ndax am noonu laa du noonu yiw lay juróom safaan balaa ngay wax xoolal ndax seel na nga li ngay wax wala déet mottul di wax ñu naan yaa fi waxoon ak yaa fi indi yéeg yooyu moytu ko am si ka alayka lisaanik teel làmmal bi di ko contrôlé balaa muy bot ci benn baat rek nattal baat ba ba xam lii ndax lu waxu la wala déet ñaareel bi mu ne ko wala saaka baytu guddub tànk ci boppam day may làmmiñ lu mu wax seetlu ki xëy toog këram ak ki xëy biir ki xëy toog këram nekk biir téeram ci këram di liir ab téeréem wala muy déglu ay kaseta wala mu am ganam di waxtaan wala demee noonu wala boobu mu wéet moom kese di noppal wala sax mu toog déglu dara kooku ay gën a mucc ci génn ndax ci génn moom faaw mu am lu mu gis te ki gis dégg faaw mu am lu mu wax moo tax mu ko lee saaka baytu sa tànk nañ ko gàttal ci sa biir kër kooku góor jigéen a ci bokk yow donte jigéen am na geneen jagoo buñ koy digal wax xarala fi buyutikunna kon ñaari njàngalee ngoog yoo xam jigéen am na sansam benn bu ci nekk da koy dimbali bii di alquran yoo xam alquran bii yoo xam sunna ngir digal jigéen ji mu gàtt sànq beneen bi ci topp mu ne ko wàppi ala xaqiqati bala ngaa am jotu di yëpp ci diwa def nangam diw moo wax nangam diwa nangam yooyu yëpp am solo la am solo mooy di bind sa bopp ndax yow al xiyaam moom doo taxaw mu xiyaam na la pourquoi def diw def nangam déedéet yàlla mu doon laaj loolu subhanahu wa taala dinaa koy wax mbokk yi toujours léeg-léeg diggante ñaari way denc yi danañ am jafe-jafe yow ko jigéen ki day am problème pourquoi sama jëkkër deful lu ko war loolu seen nekkute loolu yàlla du la ko laaj yow ak xiyam yàlla du la laaj bu ko def sa jëkkër ji deful lu ko war déedéet yàlla yow lay laaj li xam defoo la la war moom la ko war moom la ko yàlla laaj buntu boobu nit ñi dañ ci faral di jiw su ko defee yow topp toog sa bopp sa bopp loolu loolu la gën a yittee moo tax benn waxkat jox ne lisaanaka la tazkur bihi uyuba naasi li anna laka uyuban wa linnaasi alsinu sa làmmoñ ci boppam moytu ko ba bu ci wax ayib bi jàmbur ndax nit ñi ngay wax seeni ayib am nañu làmmiñ comme yow te yow it xam nga ne am ngay ayib comme ñoom mu ne ko wakki ala xatiati na ngay jooy say bàkkaar buñ ma sóolee ma wéet man kese mokk yépp dëpp suuf féete ma wet gu ne ñépp dem ba ma ma des ak aw nit woo xam ne musuma leen a gis àll boo xam ne musuma faa nangoo fanaan sama borom yow lay malaaka ñu war maa laaj ëllëg ma war def su suñu borom war naa xisaab ma yaakaar ajos ni mucc safara bàkkaar yi ma ci tëdd naa ko jooy yàlla suñu yàlla subhanahu wa taala ci boppam karim xalim afu ku mën a baale la ku mën a jéggale la saa boo wéetee nga tiit li nga def nga jooy ko yàlla day subhanahu wa taala dana la jéggal insha allah kon xadis boobu alimam Tirmisi ba léegi moo ko solo sa xadis bu wér kon daal téye sa làmmoñ di ko wax gàttal sa tànk ba doo am foo déggee wala doo gisee ba am looy wax wala doo gisanteeg ñoo ko waxanteel di jooy ci say bàkkaar defe naa kii jooy bàkkaaram kooku moom talub keneen keneen la jooy yeesam waaye man taluma keneen wa kadalika xadisu Abdullah ibn Amr xadis bi bi ñu waajal mawdu rek daf ma fàtte lu sori ci xadis yi gën a gàtt yi nga xam ne ñu nekkee gone di jàng dañ ko daan foye mooy yonente yàlla man samata naja ku noppi mucc na dañuy fàttaliku ne bi ñu nekkee ay gone di jàng xam ne xamaguñ dara xadis bi ci xadis yi ñu doon foye la bokk ndekete yoo rek xadis bi ci xadis yi jar a fonk la bokk ndekete yoo rek ay njàngale yu mag moo ci nekk man samata naja ku noppi rek mucc ku noppi rek mu mucc loolu moom lu wér la nopp moom boo ko defee rek mucc ndax moom malaaka yi dina am lu la bindal ci safar nit ñi dina am lu la waxal doo góob ci mbiram kenn doo jëlee ziar rek di ko jox keneen man samata la ziar ku noppi rek mucc lii moo tax l'islam sirte lool doomu aadama su mu bari la muy noppi wàññi ay kàddoom lu dul loo xam ni digle lu baax la tere safaan ak yu demee noonu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay njàngaleem boo xoolee li ëpp boo defee diqa da ngay gis ni dafay digal nit ñi mu bari lu muy noppi ndax loolu la gën a mucc xadisa Muaaz bin Jabal te imam Ahmad génn ko ci Musnad ak keneen ku dul moom te xadis la bu wér yonent yàlla mu ni Muaaz la tazaalu saaliman maa sakkatta moom fii yaa ngi noppi moom yow nga xam ne mucc na doo dañ di nekk ku mucc féeg yaa ngi noppi mu ni fa ida takallamta kutiba laka aw alayka saa boo waxee nga la woon ñaari mbir yi moom benn am na ci danoo bind aw yu mu ñeel la wala ñu bind safaan mu këpp sa kaw waaye wax moom foo ko defee rek am na lu xew te loolu lu ma tabaay xel la kàddu boo génn rek am na lu xew maa yantabu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kàddu boo génne bind na dañ koy bind ci safaan yi mbaa ñu bind ko ca baax baax yi moo tax mu ne ko saa boo waxee rek dañuy bind mu këpp ci sa kaw mbaa ñu bind mu ñeel la benn bis Muaaz da koo laaj moom yent bi ni ko dama bëgg nga dénk ma aw suni yent yàlla bi ni ko ubudillaha ka annaka taraahu jaamul yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis kii kii teewle ne yàlla moo nekk nii sama kanam taxaw di ma xool may def yaakaar naa kooka na muy defee du bokk ak ñun ñuy defee mu ni ko waabud nafsaka fi l mawta foo toll rek li ma leen sa mbokk ñu war a dee tey jël programme man tey tey ma defee xam nga kii dund moom te programme yi ne moom balaa tax sala war na maa dee kooku yaakaar naa ci ni na muy dundee bokk ñun ni ñuy dundee ba mu ci def ni ko in shita am batuka bima huwa am laku bik yooyu yëpp sax amaan na mu xaw a sori waaye bi leen mën a ëmb ñoom ñëpp ba leen gën a woo gën a garanti boo ñëwee ma digal la ko mu ne ko ban la mu ne ko xaaga daal di boot ci làmmañam bi sallallahu alayhi wa sallam téye ci mu ne ko sa làmmañ bii de boo fexee ba di ko contrôler li muy génne ak li muy def muy lu baax lu mucc mais ba nga xam ne yee moom sax daanaka boo ca sonn dafa mu ñàkk solo lool looloo tax yonent yàlla bi ci xadis boo xam ne mi ngi ci Buxaari yonent yàlla mu ne man yaqbalu lima bayna lixyatayhi wala lixyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu aljanna ku ma garanti li ci diggante ñaari tànkam muy payam ak li ci diggante ñaari paati lexam muy gémmiñam yent yàlla mu ne ma garanti ko àjjana allahu akbar ku mën a garanti ñaar yooyu yent yàlla mu ne ma garanti laa àjjana ndax laa fekk ni ñaar yooyu ku ko mën a garanti yéete rek danam laa di yomb mbokk yi asalafu saalih muy sunu mag ñu baax ñooña nga xam ni ñoom la yonent ñenn ña ñooy ña yonent bi yar ña ca des mooy ña nga xam ni ña yonent bi yaram ñoo leen yar ña ca des mooy ña nga xam ni ñooña ñoo leen yaram ñoom danoo xamoon ban poids ban wazn la wax yàlla soo tax bi yonent bi am ñoom bu ñu musaana dégg ab njàngale bàyyi koo ci yàlla wala bàyyi koo ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen programme bu dund bu bokkut ak ban doon dund la ñuy yore te waaxewal ummal yow li ñuy dund tey lu tiitlu la lu raglu la ndax li mu xam dafa bari lool waaye amuñu benn njariñ illa man rahima rabbuna subhanahu daanaka néew na looy wax lu bees néew na looy ñëw nga wax nit ñi lu bees lépp li nga wax day fekk nit ñi xam nañ ko ba pare kon dafa mel ni bañoon a wax sax dem di jëfe ji moo doon gën bañoon a wax dem di jëfe ji wax dëgg yàlla am na lu ñu jëfe dañoo jëfewul rek léegi kon asalabu saalax ñoom bokk na ci li ñu ëppalee woon mooy saa bu mu saala dégg njàngale bàyyi ko ci yàlla ak yonenteem ci sumeekum suñ mbub ñu ñu solon sol meneen mbub mbubu nga xam ñu solon ñu koy sumi day sol mbubu jëfe xamit nag poids bi nga xam ni waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko waxu yàlla subhanahu wa taala ak i njàngaleem ñu doon ko dund looloo tax boo xoolee seen dund da nga cay fekk ay njàngale yu fees jël yu lay war ñoom ñu doon dundee njàngale yi may wax tey te beneen njàngale boo dem nag kadalika moom ngeen cay fekk ndax ñoom mbir mi nekkuloon ay étiquettes yu ñu doon takk rek wala ay alaamaat ay mandarga yoo xam dañ leen koy xoolee ñu daal ñii kat ñooy nangam ay sifaat yu ne ci biti déedéet waaye mbir mi lu ñuy dund la bariwaan na koo xamante ni dañ ko yéem ci sifat biti te fekk wallahi boo xamoon sifat biir ba rek nga sib ko moo tax borom xam-xam dañuy wax ni léeg-léeg nit dees dafa xamee ci làmmuñam al imam Shafii yi dafa toog di jàngale ba mu yàgg benn waay daal di ñëw waa ji ñu yëg si si cimbaa gi gudd gudd yëre yu weex tàll ci kër mel melokaan woo xamante ni yow daal xëy ba lay am ci xëy ba da nga koy jox xorom fekk imam Shafii mi ngi tàlloon tànk bi waaw na daa toog ba sonn mu tàllal tànk pour noppal waaye xoolal or na ji ko Shafii jox ndax melokaan bi ni Shafii ba tànk waaw ci de wax dëgg yàlla rus na ma tàllal sama tànk loolu kilifa bu doy ñuy topp sama xam-xam lu toog tuuti rek waa ji laaj laajee ndox boo xam ne kenn xamul kii lim laaj bi koy laajee saafara mu ne al aana aana li saafara yow mu dara jëla kon nag léegi saafara mën naa tàllal tànk ndax kii li ma ko doon defal jërëjëf matu matu matu ko kon gis nga doomu aadama ci boppam mën nañ koo yéem ci melokaan bi ci waaye saa bu waxee rek sibu saa bu waxee rek dana nekk ko sibu fekk loolu moo lay wax ne kon melokaan bi ci waa wax ak biir baaxul Omar ibn Xattaab radiyallahu anhu dafa ñëw benn bi di seet si Abu Bakar Omar dafa jóge këram ñëw kër Aboubacar di ko seet bi mu yegg dafa seet Aboubacar ci melokaan wu yéeme boo xam ne Omar ci boppam dafa jommi Omar daa fekk Aboubacar ci làmmiñ bi ba mu génn ci bëti mu téye cat bi di waxtu di waxtu di wax rek di kebatu Omar bi ko xam nga boo téye sa làmmiñ moom li ngay wax de dootul xamati Aboubacar di wax rek di kebatu di wax rek Omar ñoo ko tax taxaw jaaxle lool sax lool lu dal Abubakar mbaa du soddam jëlee da ko jàpp wala yu mel noonu mu ne gars yi quoi mah yab na Xattaab ya ya ya ya Abubakar waaye defal naa li ngay def mooy nag gafarallahu lak yow yàlla yàlla baal la waay xool li ngay def da ngay gaañ sa bopp mu ne ko inna haada awradani bi charri lmawaalid ki ma téye tey di wax ak moom musiba yi ma tàbb yëpp moo ma ci tàbbal allahu akbar sadiqu hadihi l umma nga xam ni bu amee kenn koo xam ni nuzakkiha baada nabiyi l umma yakunu abubakar su amee kenn bu ñu defal tazkiya ginnaaw yéen saxal abubakar lay doon su fekkee kii nga xam ni ak dëggoom tax na ba al malaul aala ñëpp xam nañ ni ku dëggu la ñu su dégg si déggoon sadiqul akbar nga xam ni moom wax dëgg yàlla ah man de man de musuñee ko mbëggoon ma dugg te daje ak yàlla bëgg naa loola def te bàyyi say jëf su fekkee moom moo tiit ci ay jëfam ci aw làmmañam bay jëf lii fa kay fa keneen ko dut moom Zayd ibn Aslam day nekk ni mu ni Abu Dujaana xam ne Abu Dujaana kenn la woon saxaaba yi mu ni benn bis dañ koo ñëwal seet ko mu feebar feebar bu metti amaan na sax mu nekk feebar bu mu faatoo waaye ñu ni ko mi ngi ko fekk li metti feebar bi metti metti ñu ngi ko fekk kanam gaa ngi leer naa ñu nag ñu ngi mel ni ku kontaan di mooñ nit ñi di waxtaan ak moom yàgg laa di koy laaj waaw sa jëf yi nga am ci ne yow lan nga ci gën a yaakaar moo dajeeg yàlla mu ne jëf yi ma am day ma ca dajeeg yàlla aw ma bu ma ca gën a wóolu ka ñaari jëf bu ci njëkk mooy la ma atakallam fii ma laa yaani wóor na ma ni daanaa sàmm sama naam yi ba lu sama yoon nekkul daaw ma daaw ma ko mën a wax mu ne wa kaana qalbi lil muslimina salima sama xol bi tamit buccoon na ba dencalu ma kenn lu man sama xol sama bopp bi ñaar yi moom ni ma ko garanti ak ni ma ko wóoloo wóoloo ma koy ci des xol ñun la dañ yaakaar ay jullee ki woor ak ki nangam yooyu nga xam ne dañ kaa war a yaakaar la waaye yii nga xamante ni mooy yi ëpp solo wala ma bokk na ci yi ëpp solo ñu ñàkkal ko solo duñ ko sax bàyyi xel duñ ko sax yaakaar ba fekk mën naa dugal nit ki aljanna Ata ibni Abi Rabah mu ni benn bis dafa waxoon ndongoom li wax Muhammad ibn Suuqa ak meneen mbooloo mu àndoon mu ni yéen sama doomi mbokk yi inna man kaana qablakum kaanu yakrahuuna fudula alkalaam ñi leen jiitu woon bokk na ci liñ liñ am la leen ko may mooy ñun lépp loo xam ne desit di wax la dañ ko doon bàyyi maanaam lépp loo xam wax ko amul solo desit la ñoom soxlawul daawuñ ko def maa ada kitaabillah lu dul téere yàlla bi ñu jàng ko wala ñu jàngale ko wala xam-xam ñu jàng ko wala ñu jàngale ko wala ñu digle lu baax wala ñu tere lu bon wala nga wax lu tolloog la nga aajowoo ci sa dund bi damaa bëgg naan may leen ma naan dama bëgg lekk may leen ma lekk kaay bi nga ma ci dem barab sàngam téyal ma jàppal ma daggal ma yooyu nga xam ne yoo soxla la mu ni nga wax nga yem ci mu ni atunfiruuna wa inna alaykum la xaafidi mu yéen ndax da ngeen a gëmut ni yàlla nee na inna alaykum la xaafidi am na ñaari malaaka yoo xam ñu ngi la ko ak fóotu ñu ngi la ko kiraaman kaatibi malaaka yu am orma sa yàlla la yu tedd la waaye kaatibi ni mën a bind la duñ tàyyi ci dara amul waxtu woo ne ngay nelaw ngay dem nga toog lu ne ngay wax nga noppi même boo noppee sax ñu ngi toog di la xaar nga wax kenn nga day jot kenn nga càmm su ko defee mu ne amma yastaxi ahadukum annahu law nusirat alayhi saxifatu allati amla bihi nahaara aksaru ma fiha laysa min amri diini wala dunya ndax kenn ci yéen rusut bu dajeeg yàlla subhanahu wa taala sunu borom daal di koy bocc jox ko fooyu jëfam ndeke lam ci yendoo ca bisam lépp la ca ëpp nekkul lu jëm ci mbirum diine jëmul ci mbirum luy jagal tamit àddina mu ne loolu kenn ku ne war na ko wurus bu dajeg yàlla subhanahu wa taala maa ngi yaakaar ni lu dut ki yàlla yërëm subhanahu wa taala li ëpp ci ñun bu ñu daje woon ak sunu borom ak sunu booy jëf yooya daañu fekk yu bari yu lu néew ndax li ëpp ci nit ñi tey njàngale yi tumu duñ ko dund imam bu mag alxasan albasri day wax ni ibnu adam mu ni bu sifat laka saxifa bi nga xam tàllal lañ daw fooy bi wa wakkila bika malakaani karimaan yàlla mi ngi gàll ci sa loos wi ñaari malaaka yu tedd yaktubaani amalak dañuy gën say jëf kenn kaa nga ndeyjoor kenn kaa nga càmm muy nag ah loo neex defal fa ak si rawaat bu la neexee waxal bu la neexee noppi bu la neexee defar bu la neexee bul def bari nag néewal lu ko moom sa problème la waaye daal xamal ne moom ñu ngi ñu ngi la topp rek di bind ak xir aw aqli kalimatu li zajra baat la boo xam ne pour tëkku la ba comme ni nga la gaay wax moom bari nag néewal moom néew nekkul mooy defar la neex la muy jéggi mooy bu yow nga xam ne kon néewal la gën ci yow faf sax bañ a wax wax sax boo mën a nekk moo tax wax man kasura maalu kasura dunuubu képp koo xam ne am na alal lu bari wala li ëpp ci ñi am lu alal lu bari seeni bàkkaar lay bari mu ne woon kasura kalaamu kasura kadibu képp ku bari wax li ëpp ci li nga li ëpp looy kan lay noonu looy wax lu amut mu ne woon saa xuluqu addaba nafsa képp koo xam ne ay jikkoom dafa ñaaw na yëg ni mi ngi mbugal boppam te yàlla mbugal a boppam keneen a ngi ni Muhammad ibn Waasia mu ni benn bis damaa toog gis Safwaan ibn Muharris ci jàkka ji mu toog fekk beneen mbooloo mi ngi toog ci pegg bi nee na mbooloo bi ñu ngi am ay mbir yu ñuy weral di wax yaa ko moo ko comme ni ñu koy comme ni ñu koy defee ñun nag li ñu def ñun nee noonu rek ma gis waa ji ma daal di jël làmbaay bi daal di jóg commencé di fëgg di bëri fiire yi ndax innama antum jurbu man maa ngi dem ndax yéen jàngoro bi gën maa waal ndax danaan bañ toog ak ay yoo xam dañuy weral amaana sax boo doon seet ba ci biir sax maanaam lañ doon wax sax xëy na mën naa jëm seen mbir bii waaye mën a antum jurbu yéen ay ay ay tooxe ngeen da ngeen di wàllaate xaaral ma gaaw jóge fi di faxas yére yi wala ci jar faxas yére taxul ci biir daal ci la nekk waaye njàngal dala bëgg a wax set ku ma def ci yéen moo tax mu def noonu Makki ibn Ibrahim mu ni benn bis dañoo nekkoon ci kenn ci magi salaf ku ñox ibn Awn ñu tudd Bilal ibn Abi Burd Burda Bilal ibn Abi Burda su fekkee jiw Makki doom la ci woon Abi Musa al-Ash'ari Bilal ibn Abi Burda muy ñu koy tudd di ko waxal ay wax yu safaanu te déglu leen mbokk yi njàngale bi ak lu am solo li ci ne ñuy wax ci Bilal ibn Abi Burda di ci wax ay wax yu safaanu nee na Ibn Awd daal di noppi rek moom waxul dara mu bàyyi leen ñuy wax rek ñu ne ko waaw yow li ñuy wax moom yow lu tax ba ko yow mbir mi concerne la parce que lu ñaaw li mu koy sikkalee yow la ko waxal mu ne innama huma kalimataani taxrujaani min saxifati yowma alqiyama la ilaha illa allah wa laana allahu fulan fala an yaxruja min saxifati la ilaha illa allah ahabu ilaya min an yaxruja minha laana allahu fulan wóor na ma ne la muy bindal ci samay fooy ëllëg moom ñaari mbir kese lay doon laa ilaha illa allah wala yàlla na yàlla rëbb diw comme yéen a ngi laana abu burda yàlla na yàlla rëbb diw ak laa ilaha illa allah mu ne ma dem yowmal qiyaama fekk ci sama fooy yu jëm fekk maa ngi yéen a ngi wax laana allah ma ne laa ilaha illa allah mu fekk fa laa ilaha illa allah moo ma gën a bu fekk fa laana allah donc laana allah sax fu ma tudd ku baax waaye daal dee ma ko gën a loolu lim lay wax mooy ñoom dañoo yitte woon kii ni laamoon ci moom da leen andil aw yiw wu leen di jëriñ fële ci àllaaxira moo tax Omar ibn Abdul Aziz dañu man aksara dikra al mawti radiya min addunia bil yasir ku bari looy fàttali ku dee àddina loo ca am lu mu tuut tuut rek mu doy la wa man adda kalaamahu min amali qalla kalaamuhu illa bima yaani képp koo xam ne da ngaa compte da ngaa jàpp ni li ngay wax ci say jaamu yàlla la bopp li ngay wax dootul bare wala boog di nga compter li ngay wax di nga ko natt li ngay wax baax a baax lu sa yoon nekkul doo ko wax maa ngi yaakaar ni su ma continué woon di tudd li ngeen xam te li ngeen xamul la ëpp ci seeru salaf ci li doon sàmmoo ci wattu seene làmmoñ da nga tudd lu bare bare bare bare lii li tax ma njàngee ko mooy ngir ñu xam ne mbir yi ñuy wax ñoom dañ ko doon dund ñoom doon ko déggoo nañu ko xaar ñu ko doon dund kon ci ñetteelu xaaj boobu ci la ñuy yëg ni kon lii ab gëstu la boo xam ni bu nu waajaloon la ci yenn ci musiba ak ci ayib yoo xam ne làmmoñ mën na koo jural nit ki moo xam yegg na ci détail bi te fooguma ni loolu luy mën a nekk lay doon moo xam yeggul ci détail bi waaye lu mën ci amit lu xam ni bunt bi bunt la bu yaa boo xam ni mën nañ cee wax ay gis yu bare bare bu yeggul ci détail bi amal naan la comme gëstu la bu ñu waajaloon dees na ko yeggale ci feneen waaye li bëgg ñu xam ko foofu mooy làmmoñ daal ay ayibam lu bari la làmmoñ ay ayibam yu bari la ayib yi mën a jural nit ki ci li ko mën a tàbbal sawara lim ko daanaka mun nekk ci benn jotaay moo tax dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak dégg ak sopp ba lim bi jot a dégg lu mu néew néew néew ñu mën koo jariñoo ci yi nga xam ni musiba luy làmmiñ di tudd lu ki mel ni jëw rambaaj tuumaan nit xas bi kàcc da ngay lim lu bari tuumaalus bor yooyu yëpp ay xeeti mbir la yoo xam ni benn bu ci nekk làmmoñ am na bu ci rëy waaye bu ñu xam ni làmmoñ du caage ni lépp a ma bon tey lu ñu tax a jóg mooy wax musi lay làmmoñ waaye xam ngeen làmmoñ si raasan suuxat day jaati la joo xam ni ñaari wet yu dagg la am nit ki nag moo koy jël istiamaal ko ci ay xawaat lu mel ni jàngal quran lu mel ni zikr lu mel ni digle lu baax lu mel ni tere lu bon lu mel ni tudd yàlla lu mel ni defar ay diggante yu yàqu lu mel ni tamit noppi nag lu mel ni noppi ndax noppi tamit ci la bu ma nee baaxul ma def ma noppi kon yooyu ay taat la yoo xam ne làmmoñ mën na ko jural nit kalimataani xafifatan ala lisaan lisaan saqilataani fi lmisaan xool loolu baat yu ay ay ci àndoon subhanallahi walhamdi subhanallahi alazim nga xam ne ay angaari angaari tiyaaba lay doon yowmal qiyaama ci sa balance yiw xam ngeen wax dëgg yàlla loola def ko moom moo gën nit ki di def lii ñaata baat ngay wax ñu ne la yi wax amal am nga ca àjjana soo defee jaamu yàlla sàngam nga pare wax nangam nga am àjjana soo naree nangam nga wax nangam booy tëdd nga wax nangam boo dee ci bis bi am nga nangam yooyu defe naa ko xool sunna da nga ciy gis lu ca bari lool. kon daal làmmoñ moom paaka ñaari boor la mën naa dagg wet mu ne ab julit nag paaka ma nga koy daggee ca rek ngay jëm ca lu baax waaye mañ koo daggee ci lu jëm ci safar tomb bi nga xam ni njëkk nañ koo saam ngir jàpp bu ñu jàpp ni ci tomb yi gën a ñaar la bokk ndax daal tomb yoo xam ne fi ne kenn ci mucc moo tax ñu saamu tomb ya nga xam ne danoo jàpp ne kenn mucc xam nga yoo xam ne wax dëgg yàlla lu mel ni tuumaal tuumaal ak bor sax donte am nañu ci saaf bi am nañu ci mucc wax dëgg yàlla waaye lu mel ni jëw muy al riba daanaka illa man rahima rabbuna subhana néew na ku ci mucc ci ñun ak ku mën a doon moo tax damay wax ni fa laqad tara axyaanan tara al barqa tawila lixya qasira siyaab صواما بالليل صواما بالنهار قواما بالليل بكاء الخلوات والأصحاب يتورع عن أكل الحرام ولا يتورع عن الغيبة تلول موليكنا تيتلو تي بنت بيه جكم بنبو ذاكم الخلق الخبيث العدل الذي لم ينج منه بعض العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن الجاهلين الغافلين safaan bu bon boobu nga xam ni jikko ju nëbb la ju sibu la ju bon joo xam ni yenn ci borom xam-xam yi ñuy askan la xam-xam sax muccuñ ci su ma nee yenn ci borom xam-xam muccuñ ci kon xanaa war na wax ndongo yi muccuñ ci kon bañ a wax sax yenn ci ndongo yi wax ñenn ci borom xam-xam yi muccuñ ci ma ne kon ndongo yi muccuñ ci kon de ñi nga xam ne ñu sàggan lañ ñu xamul dara mu taxul di wax kon léeg-léeg wallahi da ngay gis koo xam ne da nga koy ñee ci sifaat yi ngay gis alhamdulilah mi ngi yor sikkimam ma ngay jëfe sunnañ sa foofa ma ngay gàttal tubayam ma ngay xabb bi julli ma ngay mel melokaan boo xam ne bu la romboon fii boo ndax da nga taxaw xoolaat ko ndax fàttalikum lay fàttali yonente bi ak saxaaba ya qawaaman bil layl guddi gi ma nga taxaw ma ngay julli sawaaman bin nahaar ba cëgg ma ngay woor wooy sunan yi ba kaamil xalawaat bu wéetee ma ngay jooy wa fil asxaar fajar ga ma ngay jooy ngir bëgg yàlla jéggal ko yatawarraw an akli xaram lu bon lu aram boo ko joxee du ko lekk parce que gëm nañ loolu dafa xaram wala yatawarraw an alxiba waaye du bàyyi jëm di fekk na moom li muy daw ak li muy li muy taat bi bu ca gën a bon xamu ko te damay wax ni mbokk yi léeg-léeg bu ñuy jàng dañuy def gis nga li ñuy digal ci alquran dañ koy def ci sunna di tadabbur di seetantal di gam-gam le xam nga li ëpp solo mooy al fiqhu fi diin man yuridullahu bi xayran yufaqihu fi diin ki yàlla nangu ci moom yiw da koy déggloo diine gis nga bokk na ci dégg diine mooy texte yi ci moom saa bu yegsee nga càmbar xool gam-gam le nattat le lépp nag da ngay fekk loo xam ne yow ci say bët yow dañ koo réyal fekk déer boo nattoon da nga gis ni ndekete loolu àndoon na lay yow nga xeet da ngay gis ay mbir yoo xam ne da nga koo réyal lool damay cëkkal damay muur maa ngay muur bay jëlee ko ci suuf maa ngay nëbb samay awra maa ngay yar sikkim maa ngay nangam maa ngay julli guddi maa dëgg la yooyu baax na te loolu war a am waaye na na may sonnee ca yooye ak ni may bu bu ñu nee préparé ma ne bëgguma parce que damaa gën a def xaram buñ ma joxee ger wala intérêt du ma ko jël parce que dafa xaram gis nga lu ñu la jox nga bay parce que da ngaa gëm ni dafa xaram ci yow waaw léegi lan moo tax fa nga jaar ba gëm ni loolu dafa xaram ci yow dafa jaaroo ba gëm ni yow dafa xaram ci yow te moo ne benn la amaan na sax nga gis ni yii gën a bon sax te loolu dana leer léegi kon di dara ci kaw nit ñi ci ay wax yu safaano rawatina di gën a yées nag ci jëw mooy jëw ku faatu ndax kooku moom moom saye moom mënatu koo jégaloo moom xanaa laaxira rek yàlla li kenn di mbir yee foofu moo xam da ngay gis koo xam ni sifaat yi yëpp mi ngi ci moom mu yend suba ba ngoon ma nga yend ci deret diw ba ma ngay jëwe ma ngay raxaaj wala kan na tuumaal na kenn wax na lu ko leeru te li gën a yéeme mooy taqulu kalimatan tarhanuka ala baabil janna wala yaatu billahi subhanahu wa taala léegi dañoo wax kàddu koo xam ne kàddu ko moo lay tayle buntu àjjana doo dugg xam nga tayle mooy damay ñëw ni la jox ma ci lislaam damay ñëw ni la ah man kat damaa bëgg junni te yoonu ma dara damaa bëgg laa tayle lii nga téye ko fi jox ma junni su ma ñëwaatee delloo la sa junni nga jox ma nii xam nga lii moom doon foog ma la jël lu dul junni bi laa indi wala maa la baal kon àjjana ji nga war a dugg nit ki nga jëwal jëw ba nga ko jëw moo lay tayle mun sa àjjana yow doo mën a dugg bara nga ba nga lijjanti ko koo pare kon bariwaa nga koo xam ni yàlla na yàlla soxe la boole ci musal buntu àjjana la ko fay tayle mooy ay jëw yu mu doon jëw ak safaan yu mu doon def ci làmmañam kon alquran ñi mu teree jëw bi uslubihi daqiq uslub boo xam ni uslub badia min jiha wa qabih min jihati axar tere goo xam ni gu gu gu gu gu am ay njàngale la ci biiram tere gu kéemaane tere gu xereje waaye tere goo xam ni gu sibu la ci geneen wàll nga ca def sunu borom mu ni wala yagtab baadukum baadan ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axihi maytan fa karihtum yàlla mu ni bu kenn ci yéen jëw moroomam ndax bëgg nga sa mbokk faat ñu yóbbu ca morgo ba wala ca kees néew ga wala ca armel ba nga fekk ko fa xiif dagg ca morso yàppam lekk sunu borom ne jëru jëru ba naa leen sa tontu fa karit bi moo loolu de xam naa ne sax fit ngeen ko tasawar maay ya abdallah àndal ak man nga def ak taxaw seetlu fekk sa mbokkum julli muy dund ak yow ni nga gëmee ne nangam ji awram la waaye lislaam ko xaramal ma ko lekk te yaakaar naa loo sip sip sip loola sip sa lekk sa dara mbokkum julli moo ko gën a moo ko gën a sip léegi lan moo tax doo tasawur jëw ci melokaan boobu suñu borom tasawur mooy mel ni da ngay lekk sa mbokk ya te sax looloo am na te sax loolu mooy li am fa karitumu loolu da ngeen ko bañ xoolal defaatal beneen taxaw seetlu pour wan la ñu ne maanaam njàngay sunna saa booy seetlu di gën a jëriñ léegi xool keroog xaditul wadaa yi seen inna dimaakum wa amwaalakum wa aaraadakum aleykum xaram xoolal seen alal seen deret wa aaraadakum léeg-léeg booy seetlu yenn jaamu yàlla yi yàlla bu koy lim tudd ko ci place bu ñor dalay wan yitte bu am solo waabudu llah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsaanan yàlla ñu mu seetlee nga xam ne bu ko waxee ba noppi kan sa waroon teg di yonent bi saa sallam foofa ñu teg ci respecté sa ñaari way jur ndax da lay wan solo sama am waaye xoolal fii inna dimaakum wa amwaalakum wa ardakum alaykum xaram seen deret ñi nga gëmee ni tuur sa deretu mbokkum julit dafa bon dafa xaram ñi nga gëmee ni jël àllam dafa bon ak ñaar yi mu xam naa doo ci def benn waaw lan moo tax ñaar yooyu doo ci def benn te fañ fañ la teree ñaar yooyu faral la teree jëw ndax loolu ku am xel dana ko def fin la teree ñaar yi faral la teree bee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu ci njàngaleem aimatu salaf comme ni ma ko junjee sànq lillahi darbuhum ñoom day dëgg-dëgg dañ doon dund lii nga xam ni moo doon bàyyi ko ci gémmoñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu musaan digg aayaat yi dañ daan def dañ ko doon wëlbati def ko ka manhaji xayaat di ko dund déglul waa ji muy ibni wax ibni wax bi moom nee na man dama wut programme boo xam ne mooy tax du ma jëw ñu ne ko ban la mu ni nadartu lillahi ida tabtu an asuuma yowma dama nidar ba keroog may dee bis bu ma rëcculee ba jëw kenn dinaa woor benn bis pour pinee ko sama bakkan nee na ma di ko def ay at saa bu ma rëcculee ba jëw rek def la ma war a def ku jëw la muy def su ma paree ma woor benn fan ma dem ba mu yàgg si sama bakkan baa ngi bëgg a bon mi ngi bëgg a tàmb woor xam nga booy sii bu yàggee nga tàmb sii mu ne maa ngi bëgg a tàmm xiif xaar ma changé beneen programme léegi saa su ma jëwatee rek damay saraxe dërëm dërëm nag bokkut ak suñu dërëm yi xam nga ne boo laajee sa ñetti maam nga laaj ko lan mooy dërëm dërëm ci jamono jooju mën naa tolloog tey jii daanaka juróom fukki dimi wala mu jege ko kon xam nga dërëm ci jamono jooju lu rëy la ay fifty nag ay nguur dëkk yooyu moo doon am te yooyu amoon na solo kon dërëm xam nga ne ëpp na solo mu ne ma tàmbali léegi nag damay boole ci koor gi tamit di saraxe waale dërëm mu ne ba ma ko commencé def sama bakkan léegi ni mu bëggee alal ca laa jaaree foofu bàyyi jëm bàyyi jëm mooy ma xam ni saa ah bu yàggee dërëm dërëm yi léegi sama alal jeex na mu ne foo ma ca laa jaar ba yar sama bakkan ba dootuma jëlati xoolal ñoom nit doon yaree seen bopp ca mooy ci ko njàngale yi maam def njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al imaamu zahabi soo delloo ci téeréem bu màgg boobu mu arrif ahli sunna wal jamaa siru alami nubala ba mu tuddee wax ci yow dafa dafa def taarix bu am solo mu ne hakada kaana wallahi mu ne hakada wallahi kaana al ulamaau wa hadihi hiya tamaratu al ilmi naafi mu ne nii nag nii la borom xam-xam yi meloon démb est-ce que noonu la ñuy askanale xam-xam tey naan nasalullah salaamatu wa aafia beneen bi ci des muy wa haadihi samaratul ilmi naafi lii nag mooy meññeentam xam-xam bu jëriñ bopp ndax gëm ni fekkee nga ko ci dars bi wala fekkee nga muxaadara bi dégg bi ko rek doy na déedéet bu fekkee xam nga ba noppi la lay jëriñ mooy nga jub dem jëfe ji ko mu ne lii la xam-xam bu jëriñ borom di wane dëgg-dëgg nag mbokk yi lan mooy riima lan mooy jëw fi lxaqiqa ma hiya alxiiba li takuna ala tumainan albaal léegi nag nga mën a amul dal ba mën a xam nag léegi loo war a wax di ko loo wut a wax di ko lan mooy jëw undur ila altaabir alnabawi albalir albadia lama suila an alxiiba fa fi saxiixayn min xadis abi hurayrata radi allahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك فيما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخيما يقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه البخاري ومسلم لما يخشى عن خلايا الخاطر حديث مين أمد البيت من يوحنا لو أخرج خمرنا خلاك لن تكون جبنا خمرنا diglul yent yàlla bi saa sallam taarif bu ñor bi mu jox jëw yent mu ni salallahu alayhi wa sallam bi ko saxaaba yi laajee wala moo laaj saxaaba yi atadruuna mal xiiba na xam ngeen lan mooy jëw saxaaba yi ne ko allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonent bi rek dañoo xam loolu nag kaana hakada kaana saxaaba yi ta'addabuuna maa nabi nii la saxaaba yi doon yaru ak seen yonent ndax am yenn nangam léeg-léeg sax ñoom da nga koy xam waaye bëgg istifati sax dañaan yàlla xam du ñu xamul seetlu foofu maanaam saxaaba yi ñoom bu ñu bu fekkee xam nañ da nga yenn laaj bi nga xam ayu yow min haadi tey tey la man bis xam nga tey bis boo laajee ñëpp xam yent bi laaj saxaaba yi gars yi ne yàlla ak yent bi xam la sax xam nañ gis ko waaye ñoom wóor na leen yent bi saa bu laajee daan na ma jàngale ñu ne dañu ëppal li tax li ñu ëppal moo tax duñ jëriñu lu bàyyi ay yow min haadi bisub tay bi ban bis la ay yowmin haada tay la ban bis saxaaba yi ni ko yàlla ak yonente bee xam loolu nag yàlla ak yonente bee xam te jamono ba yonente bi dund waaye bi yonente faatu allahu aalam rek gis na léeg-léeg maanaam ci teey tey jëfandikoo adat bu mel nii mën naa jëriñ ci borom xam-xam lu bare bare bare ah waaye est-ce que xam nga naa nga borom xam bu la ko xam ne ko waaw xam naa ko teg déedéet ne ko ah waaw loolu moom mooy lan waay waxoo ko mu ko ay ne ko mooy lan amoon na moom man danga la jox loolu moo tax yéen yàlla sax ci xisab xadre Moussa boo delloo ci saxiix Buxaari ak Muslim yéen yàlla bay wax ne seen Moussa bu muñoon tuuti danañu andil xam-xam bu bare bare bare gis nga moo teel a freiné freiné boppam in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusa'il léegi moom firi naa sama kon gis nga allahu wa rasuluhu a'lam yéen yàlla sax la mooy dikruka axaaka fi ma yakra waxal sa mbokkum jul lu nga gudd allahu akbar ndax est ce que ñun loolu lañ jàpp ne mooy jëw waxal sa mbokkum jul lu nga gudd ko ko waxal xëy na saxaaba yi ne ko afara ayta in kaana fi axi ma aqul waa su fekkee bëgg ko waaye li ma wax loolu mooy lu am yéen tamit loolay jëw loolu na yow kay li ma wax li ma wax benn loolu mooy jëw dikruka aqaaka fi ma yakra tuddal sa mbokkum julit lu mu bëggut waaw su fekkee lii ma wax lu am la mu ne loolu moom li may wax benn la li nga wax mooy li am ak li ma wax benn la li nga wax mooy am loolu laa doon wax may loolu mooy jëw ñun nag loo foog ni maanaam maadaama ni eh man li ma wax loolu lu am la waaw lu am la de kenn waxul da ngaa fen waxuñu la da ngaa fen de am na dañu ne dañuy dañuy waaw ñu naan dañuy jaawale buñ bonte buñ boxam ñaar yu bokk dañ leen di boole dañ leen di boole yow waxuñu la lu koo dëkk eh man li ma wax dama koo ñeme li ma wax lu am la waxuñu la li ma wax amul waaye dañu ne da ngaa jiw dikro ka aqaar ak ima yëg su fekkee li ma wax loolu am na mu ne loolaay jëw wa in lam yakun fii faqad bazatta su fekkente ni li nga wax amul da nga koo duuraal duur bi raa bokkut ak ni ko la waxee di saag déedéet loolu mooy kàcc da nga koo kàccal kon su fekkee li nga wax amut moom da ngaa boole ñaari bàkkaar boobu da ngaa jëw da ngaa kàcc su fekkee li nga wax am na loola mooy jëw dikruka axaaka bima yukraha lii moo tax ci lii laa sukkandiku ni kon tey lu dut ko yàlla soo dara dimbali dëgg dëgg dëgg dëgg mën naa sa dogu daal ko kenn muccu ci jëw xool xatta fi kilal amrayn anta zalim ñaar yi bu mu jotoon da ngaa xool zakarta axaaka ma yakra kaana ma ma tadkuruhu fii da ngaa tool lam yakun fii da ngaa tool ñaar yëpp benn bu mu ci doon da ngaa toll da nga koo tuddal lu mu bëggut te wax nga dëgg su boobaa loolaa yow da nga koo tuddal lu mu bëggut te waxoo dëgg dugal nga ko fii kenn am leneen sabaan da nga koo toll kon mbokk yi loolu de moo tax ñu war a xam ni kon jëw ci boppam musiba la yoo xam ni ku yàlla subhanahu wa taala dimbaliwut mën nga caa la ñu mucc nag xam nga dëgg-dëgg mbokkum jullit ni musiba yu rëy yi nga xam ni moo nekk ci jëw déglul yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne xadis la bu wér yonent yàlla mu ne arriba isnaani wa sab'una baaban adnaaha misla ityaani rajuli umma wa inna arba riba istitaalatu rajuli fi arba axii allahu akbar riba riba juróom-ñaar fukki bunt ak ñaar la riba juróom ñaar fukki buntu ak ñaar la am buntu ba ca gën a yées gën caa oyof mook nga dem ñu may la sa yaay nga di ko jabaroo moo moo ñoo bokk yam subhanallahi alazim xoolal tey ñiy jëfandikoo riba tey ci addina bi ndax wax ji egsi na ca ñoom riba juróom ñaar fukki buntu la ak ñaar bee rëy na bii rëy na bii rëy na bee rëy na waaye ba ca gën a tuuti ci juróom-ñaar fukk yaag ñaar mooy ngay jabaroo sa yaay wa inna arba riba ba ca gën a bon nag diglu xool tey bañ la waxee ba ca gën a tuuti da ngaa tii fii ba ca gën a bon da ngaa war a tii wa inna arba riba istiqaalatu rajuli fi ardi axi topp di coppate ci sa jarum mbokkum jullit di ko waxal ay jëw yent yàlla muy moo gën a foor ci ribaay billahi alayk la turidu riba wala taakuluhu wala tajmauhu wala tashhadu doo ko lekk doo ko dajale doo ko signé bal fan ñu defee riba sax amaan na boo sam njàng yeggoon suñu bëgg la faa jël léegi nga bañ baa nga dem di laaj borom xam-xam yi waaw lan moo tax xanaa njàngale bi daa yegg suul ci yow la gën a bon ci ribaay ndekete yow dafa mel ni sax kooku kon moo la tane kooku nga xam na ngay liggéey ci riba ba di ko lekk ndax riba yi ba ci gën a bon mooy ngay dal ci sa kaw dara mbokkum jullit foofu ma wax ni atadunnu nafsaki annaki naajin min alxiibati ayatuha al uxtu almuslima ndax sama mbokkum jullit mu jigéen ni bi samari salaaxiha dafa yaakaar ni mucc na ci jëw ndax dafa yaakaar ni moom mën naa góor-góor mu mucc ci jëw ndax mbokkum jullit mu jigéen mi nga xam ni mi ngi góorgóorlu di sol solub lislaam di jàng alquran jàng sunna di def lam man cay jaamu yàlla ndax day dañuy waxtaanee lu jëm ci jëw mu sakki noppam la ah lii de man alhamdulilah mucc naa ci ndax loolu mooy lim xelam loolu mooy xalaatam déedéet déglu nday Aïcha radiallahu anha ak li muy baax baax ak li muy ragal ragal yàlla nekk soxna yéen sa sallam benn bis dafa toog ak yonent bi ni sëy waay safiya moo gàtt waay xasbuki min safiya hakada daal def nii Safiya soxna yonent bi doon sallallahu alayhi wa sallam Safiya bint Abdul Mutalib mu ne xasbuka min Safiya hakada kon soxna yonent sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi waxee loolu bi Aïcha waxee loolu ay waay waay Safiya gaas waay xoolal amoon na sax loolu bu ko safee déggoon sax mën na jàpp a ñamee safee moo gàtt waay ñun li ñuy wax moo ëpp safee gàtt yéen yàlla bi ni ko sallallahu alayhi wa sallam wax nga baat boo xam ni bu doon aw tablit nga buusu ko ci géej gi xonqaay ba dana soppi couleur géej gi yépp ndax bopp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wax nga baat boo xam ni bu doon a tablit aw tablit ni mu suudee nga tabli ko ci géej gi ak ndoxam géej gi ni mu baree xonqaayu tablit ya bu fekkee deret ba dana sóot ndoxam géej gi yépp ndax bonaayam allahu akbar Aïcha looloo tax dana wax naan ah ma uhibbu anni xakaytu insaana wax ci nit bëggatuma ko mukk même bu ñu ma doon jox ay milliards ci àddina bëggatuma bëggatuma sax ci wax ci ak lu mu doon bëggatuma ndax lan ko wax keroog moo yëngal xolam moo ko tiital xadis boobu imam Tirmisi solo ak Cheikh Natul Albani mu xadis la bu wér ndax yow mbokk mu góor bi ci sama bu baax bi nga baax ñee nga ay dañuy askale xam-xam borom xam-xam nga wala ndongal xam-xam nga wala bopp paalibaay moom la wala boog sax da ngaa góorgóorlu rek ñuy waxtaanee lu jëm ci nga takk say nopp wala boog bàyyi woo ci ihtimaam dëgg ndax ñu jàpp ne mujj nga ci te lu danger lu garaaw la bunt bii ci madaaxilu seytaan la bokk léegi dañuy wax bunt yi sensible yu mel nii sam xel seytaan ah alhamdulilah yow de sant santal yàlla yow day moom mucc nga ci déedéet fan ngay jaar ba mucc yow góor gi ndax yaakaar boo yaakaar ni baax nga déglu ñaari saxaaba yi ak saxaaba yi ban baaxee woon keroog ba maa is njaaloo mu dikk ci yéen sasalam ni ko man day damaa njaaloo ko xéer nii laabal ma dama bëgg nga laabal ma ba mu ne ko dama bëgg nga laabal ma yonent bi di mooyu ko faale wu sallallahu alayhi wa sallam mu dikk wet geen yonent bi man yow laa waxal ne ma ne dama bëgg njaal doo bëgg la yonent bi doon xoolal fële ba muy ñetti yoon ba ñeent ci juróomeel ba yonent bi ne waaw kii dafa dof wala dina da kaa jàpp naka lañ di njaaloo kenn fekkeewu ko mu ñëw di boole boppam laaj ay mbokkam ñu ne ko wax na dëgg dëgg allahu akbar mooy li wax mbokk yi tàngooru ngëm ci boppam su dee la nga sa xol lu mu jiim jiim xam ngeen sawar a du jiim ngëm ci boppam bu nekk sa xol day jiim rek waaye du fay su nga xalul ndéef day jiim waaye du fay boo ci dëggee sa tànk xam ci daal ndéef boo demee ci àll ba neefaree nag lépp lu ñuy jëfandikoo ndax moom yàlla da kaa dimbale mën a yàgg ak tàkk-tàkk mën nga kaa seen doomu taal bi weex ca kaw nga defee ne lii waaye boo ca dëggee sa tànk xam ne daal gii loolu olof si tuddee gii nekk xalwaa na ci biir tàngoor waa nga boo ca dëggoon sa tànk mbaa ngelaw yi fël doom ba ca kaw te ngay xam ne daal gii waaye fay ab julit loolu la ngëm yàlla di mel ci xolam tàngooru ngëmoo ci borom moo lay jañax di la jañax di la jañax ba buñ la waree yàq même bu dee da nga caa war a dee da nga dem boole ci sa bopp ndax dootoo mën a tëdd di nelaw noonu yonent yàlla sa salaam ne saxaaba yi kaay leen ngeen raj ma ko kaay leen jàmm ko ndax amoon na maanaam ku sàmmee woon la saxaaba yi jàmm ko ban koy jàmm ñaar ci saxaaba yi la kii daal dëgg dëgg moo doxe dëgg dëgg gis na ay saxaaba jël ci sam xel day saxaaba nu mu war a toll nga xam ne yow moom ak noonu la mel ñëpp ci saxaaba yàlla bi saxaaba bu gën a ñàkk xolo ci saxaaba yi dagam am na ko ñàkk tam ndax amu ca kooku àll bi xolo saxaaba yi ñaar daal ni kii daal moo dox dëgg dëgg yow naka ngay jàll sutural na nga jaarloo kenn fekkeew nga ñëw fii daal da ngay boole sa bopp kii daal dëgg dëgg sama waa paawaay ah yenn si daal di koy dégg ndox waxul dara sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba sori tuuti yenn bi romb ay neefare yi fas wala neefare yi mbaam daal ni ana diw mu ne ha ana daa ya rasulallah mu ne ana diw mu ne ha ana daa mu ne kaay la ñëw mu ne sëgg leen fii ngeen añ ngeen lekk ñu ko yarxamuka allah rajulu kan haada waaye yàlla na yàlla yërëm la yow yontu ah lii moom dañ koy nekkat muy fama niltuma min axiikuma al aana ashaddu uqlan min haada li ma dégg ak sama nopp ngeen wax ko sànq moo gën a bon tiim li lekk ko moo gënal yàlla buuf ngeen tiimoon fii lekk ci moo gënal yàlla li ngeen def sànq wa inna saaxibakum la fi anhaari ljannati yanxamisu fiha bàkkaar nga ci moom dem na ci moom ma nga ci sew ne àjjana yee balaw ci ko subhanallah mbokk yi ki muy bàkkaar ci moom kooku moom dem na dee na wa illaa bu diw jóge na fi avant dootoo gisati wa illaa yàlla moo jox say siyaar kon musiba ngay def amul benn njëriñ li ngay wax amul sens ba ko moo tax kon ci bunt boobu ci la ñuy yëg ni nit ki su fekkente ni dafa gis loo xam ne su ko waxee du am benn bunt bu mu amalee njariñ lislaam ko ko wax ko amul njariñ moo tax mbokk yi lii moo tax am na benn wax bu Abdourahman ibni Mahdi doon wax dafa mel ni xadis bii man ci laa ko comprendre bu baax Abdourahman ibni Mahdi mu ni su dul woon damaa ragal nit ñi di mooy yàlla te may sabab bi kon damay ñaan yàlla ñëpp ñu ma jëm Abdourahman ibni Mahdi mu ni su dul woon nag damay ragal nit ñi di mooy yàlla te fekk maay tax ñi mooy yàlla mu ni damay digal ni ñëpp nañ ma jëm lu tax loolu xoolal mu ne fa ayu cheyin adnabu ila xasanatin ajiduha fi saxifati min gayri amalin amal na xam ngeen lu gën a neex tiyaaba ju ma fekk sama kontat tiyaaba te defuma ko fa loolu kay daal neex na bëgg de mi ngi mel ne rek benn waaye bu dem ubbi benn compte def cëb numéro xëy rek ñëw ñu ne ah yow de am na ko la ci versel nangami junni te yow xamoo amaana dana kaa may xool loolu dam neexee ci yow moo tax yonent bi saa sallam maam Abdourahman ibn Mahdi mu ne lii day moom lu neex la ndax amut lu gën a neex ci yaaba ju ma fekk samay compte te du maa ko def moo tax imam Xasan al-Basri dañ wax ni lal xiibatu as as asrau fi diini rajuli min al asalati fi sixat bokk na ci musiba yi nekk ci jëw mu ni jëw day moo gën a gaaw ci yàqal nit ki que ni góomu robaale xam ngeen ni góomu robaale dem am na ñu suñu góom góom yoo xamante ni du wér day lekk di dem rek bu dee jam ca mag ñi dañuy wax góomu robaale bu dee léegi rek ay cancer rek ay jabet rek góom yooyu genre yooyu loolu la ñuy wax bu doon njëkk mag ñi dañuy wax góomu robaale mooy góom boo xam buñ la robee rek lay wér xam nga rob mooy boo dee ñu suul gis nga loolu ni mu garaawee ci sa yaram bi sax wuy lekk sa yaram bi ni mu garaawee mu ne jëw moo ko gën a garaaw xasanul basri mi benn bis dafa toog ba mu yàgg benn waaye ñëw ni ko ah sëriñ bi ne wax dëgg yàlla di war nga xaawoo nga laay biir ko de ndax maa fekkee fu mu lay jëwee xasanul basri yi dem ci néegam jël benn baraat génn sàndarama raxas ko ba mu set àmbale ko muur ci ëpp torso ngàmbal ko boppam dem ba kër waaj daal di ko koy jox mu ne ko lii nag mu ne ko jisaakumulaa xëy dégg naa yaa génn ci sa compte si yaa ma defal ma ci man wax dëgg yàlla mënu ma daal remercier allahu akbar ne ko mënu ma laa fay mënu ma laa fay dëgg ndax dégg naa yaa jël say tiyaaba defal ma sama compte tiyaaba laa aqdiru mukaafaataka ala tamaam xam naa ni wóor damay lii ma def sax xeeb naa ko maa ngi def loolu nekkul la ndax daa gëm ni kooka mi ngi koy jëriñ ñun bu bu ñu la waxee jiw dana jiw da ngay mer defe naa da nga war a kontaan da nga ko war a defal lii utal ko kanam parce que kooka mi ngi bijj kontam bi la ko jox mbokk mi loolu jox sa julli guddi gi nga xam ne boo ko kenn xamul sa jooy yi nga doon jooy di ko boo ko kenn xamul loolu sa sikkar yi démb yi la nga xam ne làpp na nekk na ca place bu wóor làpp na fa yàq yéegul loolu ngay joxe sa compte bi nga feesal aw yiw boo xam ne àllaaxira loola da nga koy xeeb loolu ngay joxe waaw waaw ndax xel àgg na ci muus yegg na ci waaju sàggan bay def ay musiba sàgganteem booge yow ñee ngaay moom nga ko sibee ba tax nga di ko jëw ndeke yaa ko gën a sàggan parce que yaa moom ma nga sàggan wutul tiyaaba yow moom tiyaaba di ko jox mbokk yi xool leen loolu moom ngaa sàggan ba def lu jëfuwul tax nga di ko jëw nga waroon koo seet noo ko kañee nekk yaa ko gën a yées ndax yow muutoo moom ma nga tàggan wutul tiyaaba yow lee nga tàgganoo wut nga tiyaaba waaye ba pare nga topp tàggat bi ba pare ko jox ko sëy loolu du muus kon wax dëgg yàlla jëw ci boppam ay musiba la moo tax gis nga wallaay mbokk yi dund salaf di ko jàng lu am solo bu la yàlla dimbalee ci mën a jëfe jariñu dalay yomb gis nga Abdoulaye ibn Mubarak mu ne man du ma jóg waaw su ma nar a jóg sama bàyyi laay jóg sama yaay mu ne man du ma jóg su ma nee ma nar a jóg sama bàyyi laay jóg ak sama yaay ndax wóor na ma ni samay tiyaaba ñoo gën a yey ci jël ko bu ma nee kenn ku may jox tiyaaba sama yaay la ak sama bàyyi man su ma dee dee jëw ñoom laay jëw ndax ñoom ñu jël samay tiyaaba lan nga bëgg bay jëm mbokk lu xew tasfil xayb ah kii dañ kaa een dañ kaa mere moo tax ngay jëw aw waafaqatul aqra wa illa moom dañoo daje ñuy waxtaan xam nga rek waxtaan wi neex il faut kenn ku ci nekk sànni sa wàll loola tax ngay jëw anilla ay wala xëj foof kaf kaf rek affaire bi neex rek nga waxaale ba rëcc leen jëwaale lii moo tax ngay jëw wala bu lii taxee ngay jëw maanaam sa fatta baada daalik aw baada xiiba léegi ba nga jëwee ba dafa après lii nga tax ngay jëw léegi bi nga jëwee pare après léegi lu la jëriñ dara dalaa wàññi kay fan waaye jëriñu la ndax xam nga dëgg-dëgg musiba yi nga def ak li nga perte ni mu toll defal ko sa kanam bis bu ne xadis bi yonent yàlla saa sallam wax ni saxaaba yi ataduuna ma lil muflis ndax xam ngeen ko ko tus ko tus koo xam ne dafa perte ba amul dara dara dara saxaaba yi ne ko yàlla ak yonent bi day ñoo xam mu ne al muflisu wala saxaaba yi ne ko ah wala moom ñu yaakaar ne xanaa mooy ko amul dërëm amul dara yonent bi ne déedéet ki kutus ki perte mooy ku ñëw yowmal qiyaama andaale ay montagne qiyaama ay julli ay woor ay dem makka ay saaxe ay azaka amru maaruf nahyi anil munkar qiraatul quran tilaawatul azkaar yëpp mu andaale ko xas nga diw jëw nga diw fenal nga diw tuumaal nga diw tuur nga alal diw def nga nangam nangam nangam boo dikkee la ma la waxoon ne lii mën na laa tayle te buntu àjjana yent yàlla mu ne bu ko defee yàlla ci boppam day àgg kenn ku ñëw mu delloo la la sa morom tooñ su boobaa dañuy jël ci tiyaaba yi kii jox ko dañuy jël ci tiyaaba jox ko ah yàlla de diw mës na maa jiw barab tàngam ndax xam nga yow ma tudd la saraay foofu moom boo ko xamul jàpp boo ko xamul dafay dee ndax yow ma tudd la saraay bi dafay dee diw damaa jëwoon ñu xool jëw kat ah quatre vingt dix point lañ koy point ñu ne génne leen ci tiyaabam quatre vingt dix sax beneen waaye ni ma ne jëwoon na ma de ñu ne kon jëw moom quatre vingt dix point la jox leen ko beneen waaye ñëwaat ñu def noonu ba fukki nit yaag juróom-ñaar jeex ndax ñooñu nga dinoon a jëw segam sax du ko beneen waaye daggee ca laan nga ne ah mi ngi nii moom a tuumaalo ñu ne ah tuumale moom moo gën a rëy jëw tuumam kon faaw téeméeri point juróom fukki lañ koy point ñu génne leen ko jox ko ñu génne jox ko keneen ñëwaat wax loolu amaat na sax ci tuuma ñaar wala ñett keneen ñëw ne ah man de daf maa xasoon ñu ne xas day moom juróom-ñett fukki tiyaaba la génn leen jox ko noonu lañ koy nasee di ko natt ba nga jeexal ba amatu benn tiyaaba ak li nga doon sonn léegi. ana sa julli joxe ko ana sa woor yi joxe ko sa njàngam Quraan joxe ko amal na yow sax demoon nga ba université bàyyi jàng dem ca daara ja bàyyi jàng ndax yu bëgg alquran dem ko jàng moom ak alquran ñu ne xool ñu ne def ni mu rëyee ba mokkal téere yàlla de amaana ba danañ ci borom xam-xam yoon tafsiram ana loola nekk ñaata ñu ko fay parce que fayee nga ko ay moom mbokk yi wallahi hada huwa alxusran mubin lii mooy perte effort bu ne def ko ci àddina dëkk yow tey ay faye bar nga koy wujjee faye bari ci yàlla te faye bar bi ci gën a mën a fay bari ci yàlla gis nga noonu lañ koy topp si tiyaaba yi jeex léegi tiyaaba yi jeex na ñi nga amee li bor jeexul léegi nu ñuy def keneen daggee fële ca nga mu ne ah man kat dafa tuuroon sama deret ñu ne tuur deret kat lu foon la ñaar téeméeri tiyaaba lañ koy fayee ñu yël sa bool tiyaaba fekk jeexal nga taat ñu ne yow wàññal ci say bàkkaar ñaar téeméer yët ma nga wàññi ci sa bàkkaar ñaar téeméer yët sa borom sa borom ni ko fayal sa bool ak kële yent mu ne fa turixat alayhi summa turixat fi naar ndax bis bu ne saa boo génnee yaa ngi xalaat ci lii sooy jëw ni amaana yaa ngi dem rek di def rek yaa ngi def rek nag waaye amaana yaa ngi koy vider ci compte banque man daal mbir mi ni mu mën a demee daal da ngay ubbi compte banque ba xam sa numéro ba noppi bàyyi ko ba saa booy verse dem verse ci compte ab jàmbur bis bu retiré ko jotee di nga xam ni dugal la gën a yomb génn beneen bi ci des mooy jëw ci boppam yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam def ni ak yu dul moom daf mu ni képp koo xam ne man kaanat lahu man kaanat li axiihi indahu madlama min irdin aw maalin falyataxallalhu lyawma képp koo xam ne ameel nga sa mbokkum jullit ab safaan moo xam jëw la moo xam lu mën a doon gaawal nga jéem cee génn léegi balaa bi sa ñëw koo xam ne dërëm amu fa dinaar amu fa mu ne ba bay wecceeku égal ci yàlla kese siyaaba rek daf lay wéccee amut moo ne da foofu moom euro amu fa CFA amu fa franc franc dara amu fa parce que lépp la yàlla màggoon ci kaw suuf booleeg banque yaag kaw suuf yépp daal di koy lem fawar sama ka fayi tijjel lal pour seen tàlli ñereet poos buy def moo ne amu fa fooy wu ñuy bi def fekk amu fa siyaaba rek siyaaba moo ne dañuy weccax di compte foofu mooy siyaaba nee na balaa ngay ñëw bis boo xam ne dërëm amu fa dinaar amu fa nee na nga ñëw ameel sa mbokkum julit ñu nangu ci say siyaaba lu tolloog la nga ko ameel ñu fay ko ko te su boobaa da nga perte amul kenn kuy dem yowmal qiyaama yàlla yàlla jàmmal nu buñ fa yeggee lu dut di nga xeet la nga doon jëf la nga defoon ci safaan lu mu tuuti tuuti da nga ko nawa nawa nawa naw ba mu ëpp kon daal dama bëgg a wax ni jëw mii noonu su ko defee léeg-léeg lenn ci bunt yi léeg-léeg xaw ma man damaa xamul dof wala ñëpp wala ñàkk xam moo tax nit di xam da ngay dégg ko ni man waaye man ragalu ma ko li may wax xam naa ko ragalu ma ko mbir mi waxuñ ne da nga kaa ragal et li may wax lu am la waxuñ ne li nga wax amul da ngay jaawale yu bokkul dañ ne la dikku nga en face benn contexte boo ko ci def ndax boo ko ci defee da ngay daal di fasal bu fekkoon keneen moo firi ñëw su ma mën nga am explication yooyu joxe waaye yéen itam moo ne li nga tuddal sa mbokkum jël te bëgg ko li ma wax te moom la nekk mu ne loola laay wax may mooy jëw li ma wax nekkul te mu ni génn nga cadre ba tooñ nga ñaari yoon jëw nga kàcc na su fekkee nag hada taabir daqiq moo ko joxee jeex na xaw amatul day kenn ku wet amul ku ñuy soxlaat moo tax bu ngeen seetloo bi may waajal raw boobu aw ma aajo sax ci di indi lu bari ci waxi borom xam-xam ñu firee jëw dama gis ñu jërëjëf ko parce que li ngeen di wax dafa leer lii firi bu leer la parce que exemple yi koy gën a dëgg la nga aajoo na ko dara dund de détaillé ko waaye lu koy gën a leeral dara du jëw moo tax gis nga tudduma ci benn wax loolu dafa def noonu ndax lii doon dafa leer tuddal sa mbokkum julit lu dugg noonu li ma wax ni ngi te moom mu ni loolaay jëw nekkul te moom tooñ nga ñaari yoon jëw nga xaat li ma yëg ci sama xol bi billahi alladi la ilaha illa mooy mucc bii mucc ci yow mucc de wallahi mucc ci xaw ma loolu ngeen di yëg wala daal mucc ci yow mucc déedéet da ngay jàmbaare ba wóor na yow jàmbaar nga xam nga jàmbaar sax ba yëg ni jàmbaar nga sax moom ak mbaax la waaye da ngay jàmbaar ba yëg ni yaa ngi góorgóorlu te du la sax a mucc ndax fa ngay rëcc la doo ko fay amal na sax doo ci bàyyi xel def nga ba noppi sax te bàyyiwoon xel ànd ak loolu lépp la borom xam-xam yi islam bi comme dund bi moom faw ñuy waxante dund bi moom faw ay wax ci am diw moo naa nga faw nga wax ko moom moo xam da koy xam bàkkaar wala dafa jam bàkkaar faw nga wax moo tax borom xam-xam yi islam yi tënk juróom benn mbir yoo xam ni xaw su ko mu xaw a nekk dëppoo ni yii day moom bokkul ci cadre jëw yooyu xam ko dana am solo yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jàngaleem la borom xam-xam yi seetee juróom benn mbir yoo xam ne dañ ni yii kat du jëw kenn ci wax kan yi tëgg ko mooy alqadu laysa bi gibatin fii sittatin alqadu laysa bi gibatin fii sittatin متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستبق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر juróom leen yi ni mu bokk ci jëw mutazallim muarrif muhadir mujahil fisq wa mustabid mustabtin wa man talaba al i'ana fi izalati munkar bi ci njëkk mooy mutazallim kii wax ñu ko tooñ ma damay kalaare sama mbokk mii daa ñëw tooñ ma te baalu ma ma gis ni borom xam-xam bii wala baayam wala yaayam ak ku mën a doon ci jàmbur pour ma expliquer ko li ma tooñ faw ma ni ko nangam nangam la ma def xam nga takat ak yi mooy waaye loola bu dugg ci bunt jëw damay ñëw ma ne ah diw kat dama la koy kalaame ndax moom kat dañoo nangam nangam xam nga loolu ngay wax moom yaa ngi jëw bu dul woon ak bunt bi loolu ngay ne yaa ngi jëw waaye loolu nga wax bu fekkee wax nga la yem rek la nga aajo bañ caa booyee lu jëfoo ko aw nar nar aw kàcc booyee woo wax mbir ma nam amee su boobaa loolu du jëw loolu mooy mutaballi mooy dan maa tooñ mooy rek laa mooy xalaane muy benn ak yaakaar ne ma ànd wa ma arrivé damay xam ne diw mii kat damay expliqué ko ñu xam ko ma ko xamoo ko déedéet fekk am na ab ayib donte sax ñoo koy tuddee ayib waaye du ayib nag kullu xalqillahi jamil amaa day soox comme ni ko arab yi def léegi amash ahna araj ko xam bopp bi dafa tàppandaa koo xam ne maam bopp bi dafa rëy koo xam ne dafa nàngam koo xam ne tànk bi dafa lii yooyu ay xeeti mbir la yoo xam ne ay mandarga la loolu su ko xam ne ay imam ahmad loolu am mbokk ma ne leen di leen am na yoo wax dëgg yàlla man dama ne am ko sax moom ba mel wax mel ni kooka neex na am na yoo xam ne dina ah ahmad am imam dina ahmad am imam dina aaraj ñu kenn ku ci def imamun min aimmatil ahli hadith wal asar nga xam ne yow da ngay ñaan yàlla mel ni ñoom mel ni moom gis nga kon yooyu mandarga nga xam ne day nuru ay saa saa wax ko du gën moo tax buntu bi borom xam-xam dañuy wax ni sooy taayib nit ki wax leneen lu bokkut ak loola mooy la gën bu fekkee amoon leneen foo mën a jaar mu dul loolu nga war a wax nit ñi xam ko ak su boobaa nga wax ko waaye nag bi niyya bi du fekk saboté tax nga di ko wax kon mu arri mooy damay xam ni yow da ngaa bëgg a xam ne nit ki am nga leneen loo wax waaye moo fi nekkoon nga dagg ay saagam yi xam nga loolu du ay wax waaye ji xamaloo ko leen loo ko ma taari leen du kiran bi xam nga loolu moo lay war ni maanaam ñun dafa mel ni léeg-léeg bu nuy wax dafa amaale ay ay mbir yu tàdduwaal suñ biir xol kon seetal lenn loo xam ne jàpp nga ni lii boo ko waxee moom ñu xam ko ah xalaat nga xalaat amut leneen loo mën a wax lu dut loola nga wax ko bi ni yëpp nit ñi nañ ko xam parce que li may expliquer parce que amaan na maslaxa mi ngi ci nga xam ne diw mooy diw mooy mu arrêt mooy koy xam ne yii nag maay bañ gudd la dana ci nekk am nay détail waaye loolu doy na fi insha allah wa mu xaddee kuy moy di kuloo nit ñi am na benn borom xam-xam te fii nag damay bokkaale munasaba dafa am loo xam ne loolu borom xam-xam yi du suñu rôle ñun ñii am na koo xam ne day bokk ci ñuy yàq daaw parce que li muy wax baaxul li muy nangam ma ñëw ni ah diw kat moom kat te fekk day fekk jaar nañ fa ñu war a mën a jaaral moom laay biir nañ ko def dañu war a def su ko defee mu xàggal ñu mooy tëddi ko nit ñi diw kat nan ko mooy tëddi parce que moom kat li muy wax wérul li muy wax ay bànneex la li muy wax lay dépendre nangam li muy wax mbooloo sangam lay nangam moom kat amalul intérêt su na si nag te loola yéene bu rafet ay musiba rek mu ngi ci nag dinaa ko mujjee insha allah ci buntu boobu te ñu bari di ci caat bi te duñ ko yëkk kon mu arrive mu xàggal mooy mooy tëddi ko nit ñi amaan nag am na koo xamante ni ci mbokk yi la nekk waaye daa am feebaru bëgg jigéen loolu day am li may wax day am misaal bi ma joxe day am daa am loo xam ne feebar la buy dalee kooka nag su fekkee feebar boobu da koo am ñu yëg ni lii wér na jaadu nañu wattandiku loolu ñu muy fréquenté ah diw kat daa am feebaru bëgg jigéen loolu day am de comme ni ma lay ci góor léegi ni dina yegg foo xam ni natt dëgg moo ko dal loolu natt la feebar la dana dal góor dana dal jigéen góor la lu muy dal ah moom kat jëfal ni ko tax moom moom daal jiw na ngeen ko may parce que moom daal dëgg yàlla boo mënee yem fu gàtt daal seen kaw bu ne ñi ngay waxal ne doo intellectuel muus na nga yem foofu bu fekkee daa jar leeral nga gën a leeral waaye te yéene bu mu nekk yàq bu mu nekk tuutal déet na nekk nit ñi nañ ko xam ni mooy indi ko téere sàngam bu kenn yër parce que nag kese sàngam bu kenn déglu parce que nangam diw sàngam bu kenn dewee nangam parce que nangam fekk na yéene bi mooy kii day yàq mu wér may day yàq waaye nag ànd la mën nga xam ni am na yoo xam du sawàll yow bàyyi ñen ñekk wàllam ñu def ko yow koy nopp nga noppala ko comme ku duddoo lakk jëm nga fi nekk lakk sama sama am na borom xam-xam yu war a leeral yooyu ñoom nañ ko leer yow nga noppal ci nga topp yeneen am na yu la gën a yitteel saa yu gàtt gàttal yi te moo ko loo ko dem jàngi ko moo la gën a wax ngay def ay fatwa ak ay leeral yu kenn xamut ndax nga mucc beneen bi ci def mooy mujaahirin fisqan koo xam ne moom ak caay caayam daf koo fësal ñu dénoncé ko kooku moom bee daanaka xaw na ñoo jege am na koo xamante ni moom moom ak dafa caay caay wax dëgg yàlla def na lii def na laa ay loo xóor yi kese ah su boobaa ñu dénoncé ko ngir nit ñi xam ko moo xam nag façon bu mën a doon ay loo xóor rek lay def mu daal yàqoo yu bare bare bare bare maa lii tey lii yow maa la li tey yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ay loo xóor yu nit kiy def su boobaa ñu xam ne kii kat mi ngi def loo xóor si dama léegi sax na guddalatu ko su boobaa nañ ko dénoncé nit ñi xam ko bu ko defee mooy te dikkuloo ko nit ñi wa mustaf damay ubbee ci am borom xam-xam damay sàkku mu ubbee la mooy damaa ñëw pour laaj foofu nag dinaa bàyyi loo xel mbokk yi léeg-léeg ñun mën na noo am baat yu jëfandikoo te duñ ko jëfandikoo man ak sama jëkkër kat dañoo am problème parce que damaa ñëw a ko déedéet ñun am na benn waay boo xam ne mu jeex jël ko am na yoo xam ne bu fekkee mën ngaa bañ a wax sax kum doon wala yàlla xam ne léegi da lay woo laaj la laaj boo xam ne yow li mu ko laaj da ngay rus bala ngaa tontu da ngay rus ndax am na loo xamante ni mën ngaa bañ a wax ni man la rawatina fitt yi nga xamante ni ceer ndaw naa tëdd borom xam-xam moom day laaj mu ko dëgg la am na masala yoo xamante ni nag bu ñu la mënaanee kooku kan la ngay wax kan la masala yu jëm ci ay fateek masala yu jëm ci sensible yi nga xamante ni pour nga régler ko faw nga xam xóot xóot yi te biir la ah faw nga ni kooku kan la war nga dal boppam na ko laajal boppam waaye bu dul loolu du jar muy xam ko mu dox jarul ko am na koo xamante ni kat nangam nangam nangam da kaa gaa ñu dal ko laajal mën naa yow la rek yaay laajal sa bopp mën ngaa waxee loolu daan koo xamante ni nangam ak nangam da kaa gaa ma ko doon laajal te loo de yaay laajal sa bopp jeex xaw a sutura am sutura tuuti dafa xaw a xaar loolu nag tekkiwul ne mooy jublu day am mbir yoo xam ne faw mu leer ndax am na masal yoo xam boo ko doxalee nii ki ki lay tontu bu dee xam na ni ñuy tontoo masal kooku faw mu laaj la kooku kan la kaa yi ñu ko dal nu mu ko dalee tudd ay détails kon am na masal yoo xam ne dañu leen am benn waay rek boo xam ne kon mustaf bi faw ma laaj ah su ma dikkee di laaj faw la may laaj ak lan may tontu yëpp mën naa dugg ci buntu jëw waaye du nekk jëw ah mi ngi mel ni damaa ñëw di la laaj waaw man de jigéen ji ñëw mu ne man de diw daa dëkk dama labal wala bu góor bi mu ne man de dama bëggul soxna sàngam comme yow xëy na yaa koy jàngal wala comme yow xëy na yéen a bokk koñ wala yéen a bokk classe dama bëggoon nga wax ma loo xam ci moom mu ne ah ku bëgg àddina la de xam naa ne jàmbaar la waaye daa bëgg àddina loo te fekk loolu moo wax nag lu am la bu dee góor la ma ne ah daa gaaw a mer de te gaaw a mer moom man sopp ma ko ci jëkkër moom gis nga waaw kat te loolu da dugg ci buntu jëw ndax yéen daal sanam def na ko ba ndaw sa dikkee um sari di ko laaj loo xam ci abu saf aw abu abu sufyaan ak abu jaxam kenn ku ci nekk moo xam la nga wax am ko waxam kii dem day dóoraat am bi waaye bu ne daa bëri lu muy jub kii ni moom daa nay moom du joxe lu mat gis nga daa nay amaana yow bu ñu la waxoon daa nay da nga naan moo xanaa tëdd woo àddina xanaa naa ñu ne yéen si ñuy jàngal tëdd àddina ma wax loolu góor du nay baaxul nay baaxul ci góor ñaaw njort ci jigéen la gën a bon waaye baaxul ci góor gaaw a mer moom bokk na ci gën a bon ci góor ci jigéen la gën a bon kon yi ma xam ndax wala ak fatwaa ci wàllu diine ah diw kat wax dëgg yàlla dafa def nangam diw kat dañoo génn sànq ñu ñëw tijji suñu boutique di dugg ci am lu mu jël xam nga wax naa ab safaat waaye nag la may laaj mooy lan moo war a nekk sama mawte ah su boobaa dugg ci buntu jëw kon mustaf bi beneen bi ci des mooy waxoon talabal i'aanata fi idaalati munkarin maa ngi sàpp ku ma dimbali su ma yëkkati lu bon lii diw kat wax dëgg yàlla dafa def lu bon wala yu demee noonu léegi may xool fan laay jaar ku ma ko mën a kalaane ku ci man dara li ñu naan am na koo gis ku ne am na ku man ci moom dara ma seet ka man te moom dara ma dem wax ko diw sàngam mii kat mi ngi waxal diine te war ta waxal diine ma seet ci njàng ne moom bii kilifa yi mbokk yi ma wax ko ko ah genre yu demee noonu kon daal talaba al i'anata fi idarati munkari alqadu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al i'anata fi idarati munkari yii mooy buntu yi juróom-benn yi nga xam ni borom xam-xam yi seppi nañ ko ni yii dugg ci jëw waaye waaye ba muy ñaari yoon ma ne bàyyil xel ni buntu bi buntu bu sensible la bu garaaw boo xam ne seytaane mën na caa dugg ba yàqal la jëw loola te doo ko yëpp bi xujjati yaa ngi ci juróom-benn yi kooku moom bàyyi ko xel xam nga seytaane ku bon la naxudu billahi minhu wa min charrihi wa fitnatihi gis nga stratégie yu garaaw lay rek yow da nga am programme bu ñu ngeen si da ngay jàngi da ngay def beneen da ngay def mag da ngay wut a tukki da ngay lii da ngay laa da nga bëgg a def jabar da nga bëgg am jëkkër di nga joxe dépense am nga programme yu jeex mu kaw seen programme mu kaw dara mun jëmu ngeen si jëmu dëj jaar jiwu jiwu fenn léegi yitteem mooy nu mu fexe ba am mbooloo moom ànd dugg jahannam kii kay xam nga moom dëgg yàlla koo xam ne yow yaa ngi lekk bay suur say xalaat di màggal sam xel stratégie bi mooy nu ma naxee nit bunt bii mën laa naxte doo ko yëg bunt bi min ma daal di seytaan bala ngaa wax buñ la laajee bala ngaa tontu ak bala ngaa jóg dem di laaj moo xam ci juróom-benn yi yëpp nga la waay teel la laatal sa yéene la la la lañ bëtil taw laa mañ du përñi ko du përñi ko ñetti yoon waaye yow taw yow est-ce que yow jubluwoo ci sax weer nit yi est ce que yow loolu mooy sa yéene nga laajte sa bopp sa bopp nga la est ce que yow sa yéene dafa nekkul maanaam yow tuutal nit ki rek ñu yëkkati ko yow est ce que sa yéene nekk nekkul bañ ci takk kee rek ndax ndax gis nga nga laaj sa bopp tuumaal la sa bopp ab julit day tuumaal boppam gis bu ne ngir mu mën a mucc gis nga su ko defee boo laajee sa bopp loolu li ngay wax diw kër ñoom seen mën xëj nàngam comme ni ko bokk yi faral di waxee te amaana sax ñu nga ko xamuñ sax li mën xëj sax mën xëj diw baaxul lan nga jublu ci di ko wax tuutal moom kat moom du du salaf yi du lii du laa mën a d' accord yaa ngi wax ay wax waaye yow foo ko dugal da ngaa def est ce que dugg na ci juróom est ce que wóor na la xam nga li gën a yées mooy di defe di défendre sa bopp di ndax sa bopp sa yóbbu balaa ngay diw mën a jëm baaxul ñoom diw seen mën a nangam nangam diw ñoom gis nga seen ixtilaaf bi góor bi d' accord li ngay wax am na waaye maa dugg ci jóg nga ne ma am na fu mu ko dugal ci juróom benn yi kan moo la garanti ne dugg na ci sa benn loolu tamit lu mat di bàyyi xel ndax bëgg lu baax ba far def ay musiba nag daanaka xawoon tuuti si noppee ko doon gën seytaan yi moom day def tal bi surtout nag tullaab al ilm yi ñi saa ko xam-xam xattaa ba ci biir borom xam-xam yi sax musiba ji tooxee ji ba ci biir borom xam-xam yi dugg la ci ah te léeg-léeg sax léeg-léeg sax nga dénoncé lu jëm dénoncé moom laa wax mbokk yi dafa yoo xam ne si daanaka jur ko léegi nag ñàkk xam wala wala wala wala ëppal wala ñàkk xam nu ñuy defee moo koy sabab démb rek maa ngi koy wax mbokk yi léeg-léeg ñun ñi nga xam ne alhamdulilah dañuy góorgóorlu ci bëgg lu set ak di ko wut dafa mel ni fi ne man su ma doon waxtaan am na borom xam-xam yoo xam ne nii sax ñu ma leen tudd ndax lañ leen waxal ci ay saxaar tey su ma doon saytu xur wala nangam nit ko xam si ne dana tëb am na ko yëkkati li ma wax dafa aay waxuma lu aay am na yu baax laa fekk nit yi mën nañu ahlu sunna wal jamaa mooy nit ki fii ak nekkul mubtadia fii ak nekkul mubtadia boo xam ne mujaahirin bi bidaati fii ak nekkul aasin mujaahirin bi aslaani nekkul faasiq boo xam ne mujaahirin bi fisqi kooka lam baax leen nañ ko ko nangul lam bon leen wakkilu amrahu ila Allah lii mooy mën a jël suñu jabar li ñuy wax mën nañ mën a ñoom xamuñ sax luñ mën a li mu baaxee dañ koy jël bon moom ak keneen keneen ci bokk yëpp dëgg la am nañ ay njub dama wéral tuuma yow ci buntu boobu dëgg la am nañ ay safaan yoo xam ne dëgg yàlla du noona subhanallah cheikhul albani alayhi rahmatullah ci jamono yooyu yàgg maa ngi fàttali ko mos na wax déglu benn kat ñaari kat mu def al i'tidal fi sayyi mooy digg doomu sëy bu benn waaye moo ko téléphone di ko laaj waaye waaye man bi ma dégloo ko dama ne kii de bu xamoon ni lii la ko albay tontu du laaj bal dafa mel ni man dafa bëggoon xam nga ne da ngay laaj ngir bëgg nga dal jiw far ci kawam la doon dal nag Cheikh Albani moom yow loo def yow lan moo la yitti moom ay mbaax mbaaxam am nay mbaaxam am nay safaanam nangam wax koy wax yu tar yu dal yu métti te it nga noonu laa ko bëggee sax na mu ko defee nag ndax loolu la ndax daa mbir yoo xamante ni lenn ci ndongo yi ñoo koy indi ci biir borom xam-xam yi wala ndongo yu mag yi kon buntu boobu nañ ko bàyyi xel dëgg la nit ki li mu juum nangu nañu juum na waaye nag bu tey lan baax la ci nag nañ ko baax la nañ ko wax ñaar ci ay exemple ngay indi yoo xam ni ñu ngi ko jëlee ñooñu am na yu bari yu duñ ko jël ci ñoom bal sax danaan am na ay imma yoo xam ne tey yaa ngi jël ci ñoom bis bu nekk am na ay mbir yoo xam boo teega da nga koy bàyyi kon buntu boobu nañ ciy ceey léeg-léeg ñu juum ci njuumte yu mag ba bàkkaate la la Cheikh Sall Fawzan doon wax karam karam karam laaj ndax imam Ibn Hazm ak imam Nawawi ñu ne ndax ay bidaa tax la def yëpp laaj def bi des koy laaj am na yoo xam ne boo ko laajoon ci karam imam Malik da lay caawaa caawaa caawaa sa yaram bi taal maa amat imam Malik yoom daal di hijra fay na jooju dafa mel ni boo defoon karam xam nga ko loolu tax rek ko tax am na yoo xam boo ko laajee ay caw lu génn la xalqa loolu nit koy laaj imam Ibn Hajar imam Nawawi imam Ibn Hazm imam Daara Xutni daf nañu leen boole ci bopp waaye waaye mbokk yi damay laaj ñii bu ñu leen boole ci bopp tamit génn nañ ci sunu ñun ndax li ñuy defee dafa bari imam Nawawi bu fekkee dañ ko jéggi génn ko ñu dàqaale sax yu muslim sax sax yu muslim buñ dàqee Nawawi ñu dàqaale Fathul Baari buñ dàqee Daara Xutni dàq sunu buñ dàqee Ibn Ibn Hazm ñu yóbbu mu xalla waa kon mbaa ñu li ñu di def dana bari dafa am yoo xamante ni ki koy wax da du xalaat yow toog tool sa bopp am na yoo xamante ni fas la lay noppal mooy du sonal leen loolu borom xam-xam yi la bàyyi koog ñoom ñoom danañ rek loo am kon buntu bii nañ bàyyi xel ne seetaan danañ ci mën lu bari te duñ ko léeg-léeg borom xam-xam diw yaa xëy diw nañ koy moytu di ko daal parce que nangam nangam amaana boo xoolee ba ci biir say intérêt nekk ci biir maag borom xam-xam mi danoo jonjonte tuuti bi nu jonjontee affaire bi jàppal ma teel aw ma nu ma ko mën a fajee lu dul di ko may indi ko la mbokk yi loolu faju ko déedéet li koy faj mooy maalun wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la taamilu ak lu ma la kon man teg naa maa i'dilu waqtum min taqwa bu ngeen fàttalikoo ci jamono yële weesu daawa salafiya bi neexoon na lool bari woon na ay ay ay ay ay ay miisaat yu ñu koy nawee fitna ji fi xewoon fi ngeen xam ko yéen ñëpp lu waral wax mbokk yi wala ñu ko nekk ak li ñuy gëm gëm gëm ñu dañoo juum man damay wax dañ leen di seedeel baax ñu baax lan woon ñoo doon dundanteeg ñoom ñu bëgg suma leen comme ñun ñu ko bëggee ànd ak ñoom defe loolu lépp dëgg la nag ànd noonu ñoom danañ jàpp ndax dañoo gëm ñu dañoo juum waaye duñ leen waxal lu bon lu dul lu bon loo xamante ni gis nañu li ñoom wut naa naan boobu dafa waxal ko safaan déedéet ab jullit dafa imaan laa yajrimannakum shana'aanu qawmin alaa allaa ta'dilu jàpp nga ne yaa nekk dëgg waaye yaa ngi bàkkaat ci moom te ci laay profité occasion waxaale mbokk yi nga xew-xew bii wallahi kenn ku ci nekk na wéetaat ak boromam tuubaat ci bakkaar na ci de ba tay déegu daje nañ ba tay di wax ci ay mbir yoo xam ni xaw ma fu ñu ko dugal ci yii waaj loon jëm te ka ngay ñëw nee nga yàpp nga ne yàpp nga ne wér li man xëj ndax moom daan nangam daan nangam yàlla ngay def say siyaaba am fayda àgg foofu kon buñ ci biir mbokk yi nañ ko bàyyi xel bu baax dafa mel ni daal man xamante na jaay li ma waxoon sànq ni borom foye ba nekkee gone am na solo lool ku noppi mucc am na yoo xamante ni bàyyi ko nga ko war a réglé ñu réglé ko yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci boppam ci ay njàngaleen dafay bañ sax lu bay ay nettali yu bari nettali léegi day wax bu ma kenn nettalee bu ma kenn nettalee tey sama mbokk mi boo ñëwoon sama kër fi ne ne waaye jiw de nangam ni ma ko nawee nga ñëw nettali ma ab safar wallahi yàlla xam ne c'est ça boo ko gisee ak loolu lay ko xool man loolu daf may daal personnellement li may wax daf may daal moo tax yéexuma ànd ak nag yéen bi tere nag léegi nag nit ñi ci boppam nga xam ne comme xëy na dañ lay jàppe borom xam-xam te doo ko dañ koo bokk dina jokk dina laaj yi masala dina laaj dina wax la ci nit loo xam ne yow loola après wallahi baaxul daal soo dajee nit ci loolu ngay njëkk a xool seetaane mooy liggéey loolu da ngay jéem a bëtanteeg sa yi bët ba loolu waaye du sotti moo tax li baax yéen tamit du kay nekk léegi ndax da nga may nit léegi ma génn jàkkaarloo nit ki fekk loolu laa ko xool mbokk moo xam ne koo nawoon waaye safaan bi ne li ci sax dëgg la safaan ba jóg ko stóru yéen yàlla ne képp ku sutural mbokkum julitam sunu borom yàlla na ko sutural yomal xiyaam lan moo tax jàppee ko su bopp kon bàyyi xel bu baax a baax ni buñ fi mel nii mën naa sànq nit kon ŋàññi bi woon yenn xeeti mbir yi nga xamante ni ñu ngi weesoo yëpp day dugg ci buntu jëm kon daal dafa mel ni buntu boobu moom ñu ngi ciy bëgg a yàgg buñ ko bàyyee foofu laal la liñ joxe ñu xasal xadri kifaaya day def bu seen waxtu jeexee mën na leen foofu aywa naam kon mbokk bi mu ni def na kon mën nañoo doole tuuti kon ñaareelu tomb bi ñu ci jël ko muy an namima rambaaj rambaaj zaakum alxuluq alxabiis alladi yufsidu saaxibuhu fi saa ma la yufsiduhu assaaxiru fi shahri rambaaj melokaan wu sibu wu bon woowee nga xam ni ka koy def mën naa yàq ci une heure de temps loo xam ni njabarkat li muy bon bon mënu koo yàq ci un mois allahu akbar yaxya ibn abi kathir mu ni yufsidu namaamu walkazaabu fi saa ma la yufsiduhu saaxiru fi shahr yaxya ibn abi kathir mu ni rambaat kat kuy jaxase ay nit dina yàq ci benn heure loo xam ni bu xaaba njabarkat du ko yàq ci weer fekk yow amoon na rambaajkat bi di gën a favoriser ci ki ki nga xamante ni mooy fen wala ki nga xamante ni mooy njabar doy na la ci ak mborom ak yéesam yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa yadxulu aljannata nammaam am biram ne xattaat du dugg àjjana ab rambaaj du dugg àjjana foofu nag borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam du dugg àjjana tekkiwul ni yaxul du sin naa ndax day sax safara dàq kon nit ki ci boppam bu fekkente ni am nay jaamu yàlla yu baax baax le na ay jaamu yàlla def na yeneen waaye am na jëmmi rambaaj alxaafis ibnu kathir boo deret fatul baay day wax ni maanaam du dugg àjjana ja day jël fa laa dugg dana fi awali wax la maanaam du dugg àjjana bu fekkee rambaaj googu tuubu ko baaluñu ko ko suñu borom jéggalu ko ko danañ ko ñaax ca sawar sax doogu dugg àjjana waaye tekkiwul day sax sawar te loolu mooy li gën a dëgg ndax ahlu sunna wal jamaa dafa bokk ci seen pas-pas laa yukaffiruna ahlal qibla ñi nga xam ne ñoom daal ay jullit lañ ñu ngi julli ah leer na nga am ci ay maas yi amruhum nuwakkiluhu ila allahi subhanahu wa taala laa nukaffiruhu loolu mooy mën a ahlu sunna wal jamaa te mooy mën a jël xaq insha allah kon rambaaj ci boppam mooy toxal kàdduy nit ñi ala sabili ifsaad foofu am na lu ko wutale ak jëw xam nga kii jëw moom mën naa am sax jubluwaayam nekkul yàq waaye kii maa jëw la fekk ne yàq ko tax toxal ay wax toxal ay wax subhanallah lii nga xam ne tey li ëpp ci te su may wax toujours damay tàmbalee tey ci ndongo yi xam-xam yeeg sëriñ yi xam-xam si doog a wàcc awamu naas muccuñ si ñu gën a jàmbaare tey ci sunna ay mbokk yoo xam ne da nga leen di naw waaw ndax boo leen gisee ci melokaan comme ni ma waxoon naa ci saafi ak waaye am jooja waaye gis nga ay melokaan yu sibu yu salte ma nga ci seen biir rambaaj ak jax subhanallah léeg-léeg nga xam ci daaw bi doo xam ne yow doo doo ko bëgg a tax a wax ndax loolu suñu gàcce la ñun ñëpp ay nit yoo xam ne yow yu naw lan yu yaakaar lan ci ak mbaax ak góorgóorlu waaye nit ay jëf yoo xamante ni yow fekkee woo jëf ji xamoo ca dara waaye ala ilmin taamin ci ni kii doon rambaaj parce que xaraa yi day aat loolu mooy la wax yoo xam ne yow boo koy wax ngir jaxasee la tax a jëf ay kuréel mën caa feeñ ko rawatina diggante ndaw ngay matala moo xam ne laaj ko kii laaj ko kii ah man ka damaa teewoon xam-xam oustaz bi mu ne nangam nangam yow yaa yow est-ce que laaj moo la tax a jóg laaj naa la bi nga ma tontu wax dëgg yàlla bi nga ma tontu leeru ma wala doyu ma naa la bàyyeeku loola sama diggante sama borom ma dem laaj beneen borom xam-xam jërul su ma naa ko laaj naa ko diw aajowu ko jëru ko diw sàngam wax na affaire comme finiste lañ ci affaire jaxase yooyu nu ko bàyyi te lii daf may insisté ci tàmbalee ca kaw mu ni ndongo la xam-xam wax parce que moo ëpp moo ëpp lu muy am cadre bi ñu toll di ko waxee moom lañ gis lu ëpp lu ko am diw sàngam kat mooy nangam nangam nangam nangam nangam dëgg la bu fekk nit ki mën na koo def te fekk buntu defar ko tax a jóg te am na ñoo xam incha allah ñu ngi yaakaar buntu dafa leen tax a jóg am na mbokk mun yaakaar ne xëy na defar ko tax a jóg te loolu laa gëm sax ndax ku ma xam la jamono yi baax dafa di benn kaset ni ma ah ñun kat dañoo dégg diw sànga mu doon waxtaan ba wax jël baa wax ci lii ak lii ak lii ak lii moom di ma kaset bi ma ne ko lu mu ci wax laa dégg kaa dégg ma jël kaset bi téye mu ne ma léegi man nag dafa jur ay jaxase sama bopp incha allah rafet naa njort ni ku ma xam la bëggul leer ko taxaw la jëm waaye la ma ko toog ma ne ko diw sànga moo may day ku baax la baaxee na gëstukat la xam naa ko ci saaxa jàmbaar la waaye jël baab moom la ma la ca waxoon la ma ca waxoon te sama àll wa tolloon daawaataat jéeg beneen foofa laa toll baatee moom la ma ca waxoon laa ca waxaat wa salaam mu jeex bu dee jëfee tax ñu di jëfe ñu jeex waaye am na koo xamante ni moom déedéet loolu dafa koo jëf man kat yaa ngi dama demoon dantab jiw bi mu nangam nangam nangam mu ni nangam moo ni nangam gis nga su ko defee yéen borom xam boo àndul ak ak dal ak ñàkk xam buumi jokkoo yi war a dox ci diggante borom xam-xam yi nga wax ay wax yu ëppoo di safaan su ko defee nga jige fa nga ne man kay laaj naa ko diw muy na ma laaj ko diw muy nangam affaire saytaan yi mooy lan ndax lii mooy bëgg a jëriñ ndax lii mooy sunna ndax lii la saxaaba yi doon dundee laa waxal la déedéet kon rambaaj ci boppam yàlla ko daal daf koo ŋàññ ci wala tutaa kulla xallaabin mahin hammaadin mashaa'in bi namin ibn abbas mu ne yonente bi saa sallam benn bis dafa romb ci pegg dëkk bi ñaari ay bàmmeel yu ñu suur mu ne xam ngeen ñaari borom bàmmeel yii dégg ngeen li may dégg gars yi ni ko dee mu ne fi ne ñu ngi yuuxu yuuxu yu metti ci seen biir armeel allahu akbar yéen ci yàlla mu ne ñu ngi leen di mbugal waaye moo ne lu ñàkk solo lañ def ba yàlla di leen mbugal réyut de réyut réyut maanaam jëf ji réyut ci wat jëf ko waaye bàkkaar bi réyut kenn ki bu mu saana dem war a daawul nëbbtu daawul làq wala daawul siital ci ay riwaayaat keneen ki mu ne woon nag doon dox di rambaajee nit ñi mbokk ñu xool ko rambaaj fa muy yóbbee ci ba mbugalum bàmmeel la la koy jural kon lii yaxen tamit kat yi wax rek yufsidu namaam fi saa maa laa yufsiduhu saaxiru fi shahr li nga xamante ni aji rambaaj dana ko yàq ci aw ab bis ci aw waxtu mu ni njabarkat mënu koo yàq ci weer déglu xista bi kenn ci borom xam-xam yi di ko nettali ngir wan la sambaaj daya bu mu àgg ak ñun ni ñu ko xeebee ba ñu ko bàyyi xel benn borom xam-xam mu ni benn waaye dafa dem ci marché bi di jënd jaam jaam bu jigéen ja- jaam bu góor mu fekk benn jaam bu taxaw bu ponkal rafet neex a moom waa ji koy jaay mu ni kii de amul benn ayib lu dul rambaaj loolu rek mooy ayibam nam maam la rambaaj waa ji xam naa ni wax dëgg yàlla xeet na rambaaj xool na waa ji punkal na mën naa yéene luñ ko yéenaloo am na doole rafet na neex naa moom mu ne ah loolu de garaaw andi amul problème nañ dem mu daal di jënd jaam bi yëpp kër ah jaam bi yëpp kër daañu moom noppi rek daañu denc jikko ja loolu la wala fi naan jikko borom moom boo gën a yee fenn denc jikko ja jikko ja day taxaw ci buntu kër gi dina xaar boo toogee benn fan mu ne ah maa ngi ci buntu bi di la xaar de ñaari fan mu ne ah yëg lu woon naa jéem a ñetteel muy ñëwal maa ko fekk sa moo tax olof yi naan jikko borom tax donte xaaree wéru parce que loolu mooy kon bu kenn deful si jikko ji moom kon dootul baax jikko borom tax waxin la da la wane maanaam boo amul temps bu dee yàlla dimbaliwul la lay taxalee moom duy jaaxaan ah jaam bi toog ba mu yàgg ab diir ba sax bi defee ne jikko ji moom dañ na jikko ji daal di ah boo ñëw nga yegg kat daal di yegg benn bi xam nga rambaaj ak ñooy téem rek mu daal di ñëw ci soxna sang bi ni ko waaye yëg nga ni sa waa ji da ngaa defar ci ñaareel mooy li jigéen ñi gën a bañ dégg nga ne sama waa ji ne waa ji nag ñaareel mu ne ko ah daa ma ne ma la waxee gëmal ndax sang bi moom fu mu jëm man lay àndal de waa jaa ngi waaj a takk ñaareel ak jigéen ñi may waxal dañuy tiit mu ne ko lu ciy pexe mu ne ko am na benn saafara su ma lay digal gis nga bu tëddee di nelaw ngay fexe bett ko rek xawal lu mu tuuti tuuti sax baax lu mu tuuti tuuti rek am ko fii benn pepp xawal ah ndaw si ni bismillah mu ne ko da ngay jël bànq tuuti benn pepp xawaar nga garde ah sang bi daal di tëdd di nelaw mu ne ko bu la neexee tay tay mu ne mu ne maa dem ci sang bi ni ko ah yow mbaa xam nga ni sa ndaw si moom boo du génnee am na keneen ku fi ñëw di ko jamaale mu ne ko ah mu ne ko waaw boo génnee maa ngi def ci kër gi léeg-léeg de am na ku koy jamaale de moom nag dina xam naa li ko gën a jaaxal mooy xamul nu mu lay def fi ne moom lu mu def ba léegi dana rek dana ko def pour ànd ak kooku muy jamaat mu ne ko firnde ba lay jox xam naa saa bu ma la waxee loo gëm waaye firnde laa lay jox tey bu tëddee rek bul nelaw deel nelaw nelaw te naawam ne ko deel nelaw nelaw rek nga di ko xeer sang bi du wàcc ndeysaan tëdd di nelaw nelaw lu ba jabar ji defe ni mi ngi nelaw rek mu jël paaka bi ñëw di dagg si benn benn xam waa ji di ko xool ba mu ñëw rek mu ne nikk loxo bi ah man nga doon rey si xaar ma rey nga benn ba mu ko rey mbokk yi ndaw si daal di ko yëg ñëw rey ko góor mbokk ko góor ci daal di sow ba koy dee ba ay nit yu bare bare bare bare seen deret tuur si ñu dee xoolal xista bu mel noonu ak rambaaj ni mu xeeboog li mën a yàq wallahi mbokk yi bari na sëy tax si fekk loolu ko yàq yaa xi soxna jàmbur si ak lu mu mën a doon waxal lu rafet li nga xam lu rafet wax ko la nga xam ne safaan waxtu waale da nga ñaanal ko yàlla mbaa nga woo ndaw si laa si ko yow sa jabar ji kat saa boo liggéey day dem nangam nangam déedéet demal ba ci ndaw si ne faa naka gis naa la sa borom kër bëggul ku yéen sa day génn man nag wax dëgg yàlla bëggu maa affaire jaxas dama laa ko bëgg a wax ngir yàlla bul ko defee soo ko defee ko dinaa la boole su fekkente ni mbaa moo la tax a jóg bu ko deful nga doog koy boole ci jàlluwaat la bari waa na kër yu tas te fekk li yëpp tas li ñu xam ci ay sëy yu tas li nu xam ci ay ànd yu yàqu li nu xam ci ay diggante yi boole xam-xam yu ñagat fekk yii moo ko indi rambaaj ak yàq kon dama la ko wax ni maanaam rambaaj ci boppam ci jikko yu bon yi gën a bon yi gën a safaan gën a mën a yàq la bopp kon wax dëgg yàlla su fekkee ni ndongo yu xam-xam yi ñoom lañ yaakaaree ñuy defar ak a gindi ñi nga xam ne ñoom nee na ñooy ñooy góorgóorlu ci mën a aju ahli sunna wal jamaa wa huwa almanhajul xaq insha allah damaa jàpp ni mbir yu mel nii war nañ koo sib war nañ koo moytandiku surtout ñett yi ñett yi loolu mën naa indi ci bu dugg ci buntu rambaaj ñett yi koo xam ne loo dégg rek ñett yi am na jigéen ñoo xam noonu lañ tàggatoo nett bi am na góor yoo xam noonu lañ tàggatoo nett bi te loola rek day jur ay safaam wallahi li mën a jur ci ay safaam bés ko doon lim da ngay lim lu bare rek kon mbokk yi diggante borom xam-xam yeeg diggante dund geeg ndaw ñeeg mag ñeeg fu mu ci mën ci doon damaa jàpp ne rambaaj moom ci safaan yi gën a bon la bokk doy na ci bonam sëkk wala ci ñuy wax leneen mooy ab rambaaj moom du dugg àjjana comme ni ma ko leeralee dafa mel ni kon waxtu dat nañu ñaari melokaan yooyu xam naa ñu doyloo ko rek incha allah te te def amaana yeneen i jotaay incha allah kon ko mën a yeggale ñu jàpp ni ñu mën caa jël ñu ñaan suñu borom boole bi defal tawfiq بولن جينا أن يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا من توفيق الباري سبحانه وتعالى ما أعلنا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين